jërë ngeen jëf mbokk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu at mbégte dellusiwaat ci beneen édition euh, Good Morning Africa programme programme bi nga xamante ne saa bu nekk bu waxtu bi jotee dende ñu ànd ak yéen euh, waxtaanee réew mi def taxaw seetlu tamit ci tolluwaay bi euh, mu doon lu am solo ñu ngi leen di nag di jaajëfal bu baax baax ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi. di amati mbégte kon ni ma ko waxee fas yéene àndaat ak yéen euh, comme juróom-ñeenti waxtu jafa dora jot suñ maakaan ñu ngi leen di ziar bu baax ba di la ñaanal jàmm fi ngeen mën ta féetee ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir réew mi euh, tey ñu bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di bàyyi xel tamit ñi nga xamante ne ñu ngi ci biti réew diaspora bi di ñu bàyyi xel always ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu bu baax Euh, tey di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen ay euh, yitte ci bàyyi xel euh, Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV bés bu nekk ci semaine bi dooreek alterne bi ajuma ci juróom-ñeenti waxtu jotee dañ dee ñëw ànd ak yéen waxtaane réew mi bu jaree tamit ñu xuus dem ba bitim réew waxtaan li nga xamante ne moom mooy xew-xew euh, bu jëree ñu indiwaat mbir mi ci réew mi def tolluwaale yëf yi def ci jàngat dañ koy def waaye bu jëree tamit fekkee ne daanaka international euh, xew-xew la comme ni ñu koy waxee euh, dañ koy jangat tamit surtout su fekkee ne Gambien si am nañ ci interest wala ñi nga xamante ne mooy international community bi lépp rek bu fexee ngeen am. information yi nga xamante ne yu am solo la waaye tamit yu yu yu déggu comme ni nga koy defee ak yéen sasu su nekk bu waxtu bi jëlee ñu ngi profité tamit di ñaanal ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital fu ne ci réew mi ñaanal leen yàlla bu baax a baax ñaan yàlla mu delloo leen seen sago noonu tamit la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew bi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile Two Central Presidency ñu bàyyi xel euh, di ñu wettali ko ah suba bu nekk ñoom it ñu ngi leen di nuyu euh, di leen bàyyi xel saa su ne di leen ñaanal yàlla bu baax a baax ñaan yàlla mu teggi nattu yi euh, ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activité si yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def ci barki Nabil Moustapha démb rek ñu ngi koy wax ñu ngi tamit ci waxtaay màggal bi di ñaan yàlla. Euh, yàlla yombal yëpp ñëpp ñi nga xamante ne am nañ yéene dem ci màggal yi yàlla na yàlla yombal euh, waaye tamit bu ñu fa demee euh, lépp lu ñu fa ñaan mu yàlla soppi ko yiw yokku ko jàmm ci réew mi di réewi Gambie ak Sénégambie ak fépp ci àdduna waaye surtout fi nga xamante ne ay yëngu-yëngu ñu ngi fa am wala mu ngi fa am right now xam ngeen ne Eh, soppi jon bi moo right now dafa tension bi high na torop moo tax ñu war ko ne di ñaan rek yal na jàmm am ndax jàmm nag moo gën fu jàmm newul comme gars yi nu ñu koy waxee toujours su ko defee ñu gërëm leen bu baax a ci safoo bi waaye tamit ci kolte bi di leen wax jërë ngeen jëfati te di leen jalal jàmm well viewers once again welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV it's uh, of course Tuesday the 29th uh, of August 2023. And it's another warm welcome to the program. And we extend a warm greetings to each and every one of you out there, depending which part of the globe you are right now following this program. We say good morning from Banjul. And thank you so very much for joining us. We are coming to you live from our studios. And as always, we appreciate your company and the contributions to the program. So once again, welcome. And uh, as we have some very interesting lineup this morning to talk about, uh, in a moment we'll get to the nitty gritties as well as to what we intend to discuss in today's edition. Two very important issues or more, time permitting, by the way. And um, yeah, so, but I will, I will, get to the issues right after my colleagues extend their greetings to our uh, Eden viewers as always, and then we will get to the uh, you know discussions, inshallah. So wherever you are, Thank you for choosing us and um, for the pleasure of your company. And um, yeah, you can keep your reactions or send your views, share them with us, especially those of you who are following us on our various social media platforms. We say thank you. And um, please share whatever you want to uh, contribute. Your comments are very much important to us, and we appreciate that as always you have been doing for the longest time possible. So, again, it's always welcoming, and thank you so very much for, for joining us in, in today's edition of the program. I've already said that I would now allow, allow my colleagues also to extend their greetings, Modu Muhammad Nyang and Mam Jibi, and my colleagues that are always joining me for this very, very uh, wonderful program and conversation. Yeah. su ko defee jox kàddu gi Modou Mohamed Niang ak maam as always uh, su ma neexee ma ne ko ne suma grand le directeur Uh, vice president tur yi bëri na de wala Toki Shop borom Toki Shop yëpp <laughs> ma em fa de am na yeneen ñu dess ma xaaral ma ko rek ah ma nuyu la ba bay la nga nuyu ak naka nga def alhamdullilah Amadou la mhm. di la ziar di la ñaanal jàmm <clears throat> loolu nag tam nuyu naa day ñi setan Africa TV ñi nekk ci ñi tok ci rew mi ak bitim rew yeb di fi taataanaa seen xibaar yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm amaan mbégte sant yàlla ñëwaat ci programme bi mhm. démb ñu ngi fi woon tey ñëwaat neen si tal ak fekkee loolu ñu ngi ci sant borom mbaan mi rabbi samawati wal ardi di ñaan mu yokk jàmm si réew mi di ziyaara ñëpp di wax ne ñëwaat neen fi nar ànd ak yéen xibaar yu wértu wóor comme ni ko Amadou waxee dinañ indi ponk amati solo mm-hmm. waxtaanee ko bu si xajee ñi ñu xajal leen si yéen tamit taataan si seen xalaat yu baax yu set yooyu yu am solo la soo loolu daal mbégte laay doon saa su ne jaajëfal ñëpp ñu safoo kër gi comme noo ko waxee kóolute gi ak safoo gi dafa am solo bu baax amatu ñëpp ñu ngi leen di nuyu jamono yi soo demee ñu bëri tey ñu ngi toog jàkkaarloo tele bi di xaar programme bu am solo bi soo ñu ngi leen di gërëm amuñ seen fay parce que you know kiy wax kiy déglu rek. mooy. mooy waayam mooy waayam. Mm-hmm. te solo dafa am solo bu baax ba pare kuy déglu may bi sax ëpp la xam-xam si li ngay wax. waaw laa wax fi ngay jumee hmm. te soo dajeeg moom wax la ko waaw ba pare encourage la tam ah, so euh, hmm? bu ñoo wax ni suñ suñ ay doyen suñu ay kilifa yu jaar ci liggéey bi def ci lu ci di la so mm-hmm. loolu xam ne rek mm-hmm. opportunité chance la comme na ko waay waaye ñoom ñoo gën a yelloo toog fii di def lu ñoo def moo tax saa su nekk ñu delloo leen jukkal bi dafa am solo xam nga man dama leen góom parce que gis nga am na boo dajeeg juróomi mag yu def liggéey jeexal seen liggéey sellaloon ko mm-hmm. ñooñu boo waxtaanee ñoom li nga siy jëlee doo ko jàng si benn université doo ko jàng si benn journaliste eh, eh, living course mm. it's very good because am na lu daj li nga xam ne ni boobu course yi ñuy wax yu bëri amutoon soo moo tax ñooñu bàyyi leen xel dafa baax ñu nag fii mm. dañ def desal gannaaw ñooñu waaye ñu mel ni Uncle Pape Sène xam nga am na def na lu nekk si media mm. soo ñoom alaaji Sëriñ Fay ñoom alaaji Modou Diouf ñu nga xam ne ri seen mooy député alaaji Aliou Diobine alaaji Assane Ndiaye alaaji ah, ñoom alaaji Mansour ñaanal ko yàlla ah. mag ñi am na ñu dem ñoom Moussa Camara xoolal ñooñu rek si ah, local language bi nuñ si def mm-hmm. si local la ñu fexee ba fula bi dégg ko fexee ba sarafula bi dégg ko ya ya ya soo ñooñu dañ fi def lu loo xam ne nii ñun ñun mm-hmm. ñu ñëwagum waaw ñu mu nuñ ko defaguñ ko ñoom mm-hmm. Babacar Thiam so def fi lu am solo mooy council living bi rek eh, naka laa di sax waaw waaw media council bi waaw kilifa yi yu am solo ñu fa so ñooñu dañ leen war di bàyyi xel di leen jege leen laajte mm-hmm. because it's ñu fi def mm-hmm. ñun defaguñ ko fi te foog na ñu ñoo ñoo foog na nag ñoom ñoo leen raw because mm-hmm. xëy na yow mën ngaa toog léegi def sa musiba mu daj àddina bi ñoom tombé wuñ loolu technologie bi am léegi waaye nuñ doon liggéeyee liggéey bu am solo bu mucc ayib la woon yes la day xemam la da leen di xemem loo gën liggéey bi tasum xibaar boo leen dégloo. Mm-hmm. Euh, ku mel ni Alaaji Mansour Ndiaye kooku. waaw kooku beneen affaire la woon beneen affaire la yee. Euh, bu indépendant jotee woon. ndeysaan nga koo déglu GRTS muy describe history. président Jawara from ja balaa Jawara. Ah. mu laa jox history na Banjul mayoon Batos. waaw Père Ndiaye yeeg yooyu ñoom. ñu demoon euh, négocier Gambie am indépendance. te loolu ñàkk nañu ko. ba ah xam naa. ñoom Alaaji Seck Camara moom bu xamoon history la. moo tax fii ñu ngi woo seet Camara tam ku xamoon xamoon na programme bu mu daan def euh, fena Sud FM la woon bu bëccëg jotaan ni euh, dañ ko daan dañ ko daan bàyyi xel bu baax so da nga xool time boobu moo tax rek bu ñu nee si indépendant bi gis président Barrow ñëw mm-hmm. ñu gis ko live ma ne xoolal time mm-hmm. di yaa dañ la dee wax ne mu ngi sol koppati bu weex waaw gi sol kaala gi wàcc si na ànd ak soxna si so yow doo si gis dara ah, soo léegi mu toog di gis yooyu jamono jamono jaame sax def nañ ko euh, muuf tuuti mu indi télévision so moom tam mu mu hmm. puus na puus na réew mi tuuti am na fu mu jéego mu tef si réew mi boo indi fi télévision tegal ñi fi non jaame def na fi lu bari am ah. mm-hmm. dafa ah. si si yu baax mm-hmm. waaw si yu baax ëmbam bi nag dafa bëri woon gerte yi mm-hmm. bën nag yi sax te amoon na gerte yu baax. Ah, absolument yoo xam ne def na ko fi. waaw léegi léegi nag ngay xala fàtte yu baax yi. waaw waaw soo constitué parce que ñaari yoon moom laa gënu njëkk ko fee ni comme ni président da koy indi tey yoon si kaw yoon si suuf mm-hmm. moom it highway bu am lampa. jaame moo ko fi njëkk yoon bu xat leen fi amoon. Mm-hmm. benn paa bu ñu dëkkee jaaree Kounda fi mu ne. day si time Johnson Kawra ñemewul a foon a dem bu timis jotee. pa pa jaata dañ dañoo waxtaanal ye dama doon remember loolu yes eh, keroog bu yéen lampoy time yi jiyaate eh, seen journaliste yi di dem di laajte nit ñi mm. examen bi kon nit ñi buñ nuñ ko yégee you know lampoy taal guddi it was something mm. daanaka amutoon some areas mm. am na fu mu jëlee réew am na fu mu ñu delloo ko njukkal na lu fi def mm-hmm. lu baax nag lu bari àdduna ku ne da ngay ñëw bay sa waar yes moo tax ñu ne tool la daal definitely eh, moo tax boo ci nekkee rek xamal ne ak lu mënta xew comme na ko waxee foo ma rek ngay mujjee soo moo tax sóoraale loolu te bàyyi ci xel dafa am solo la nañu ndaw ñu bàyyi xel si mag ñi waaw lu mag ñi mm-hmm. nekkul si benn school journaliste fii <laughs> pour mu leer ah, waaw because ñoom loolu nag dañ ko tarbiw ah, ah. nañ leen bàyyi xel di wéetak ñoom di leen laaj waaye ne fii seen mobile rek fan nañu waa di best journaliste bàyyi ñoom Pa Aliou Diobine fële ay bu ñu la waxalee nga dégg nga déggloo musta dégg jërëjëf acca mu ngi noonu maam ñu jox la kàddu bi yow it nuyu la baax ci Euh, suba si la bàyyi la nga te ak ñuy seetaan den su defee nag ñu tabbi ci waxtaan bi incha allah naka nga def naka suba si. jërëjëf Amadou maa ngi lay fay maa ngi lay ziar di la nuyu ci suba si di nuyu ñang di nuyu mm-hmm. staff ak management bu Eye Africa TV am mbégte kontaan te dellu sant yàlla julli ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari waajur sant bépp waajur sant kilifa diine yi ak kilifa aada yi nuyu staff ak management bu Eye Africa TV ndokkele dello njukkal ñaanal umma islamiya bi uh-huh. jiital ci suñu xalifa suñu sëriñ sëñ Basiir ñaanal ko yàlla woyofal yan bi nuyu mboolem murit ci biit réew mi ci waajtaayu safar gi nga xam ne ñu ngi waajal màggal mu war a doon fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar bu nekk di yemoo ak ñeneenti fan ci weeru septembre biñ dëgmal ñoo ngi ndokkele mboolem fu jullit nekkee mboolem fu murit nekkee ci taxawaayu cant gi nga xam ne Seexul Xadim moo ko woote woon te bu ñu koy waaj di ko dëgmal dañuy gis bernde yi safar yi ak yu baax yi nga xam ne ay xéwal la yu nga xam ne lu baax la doomu aadama di ko def ndax day fësal yërmande day fësal li nga xam tamit mooy joxe te joxe bokk na ci li nga xam ne lu ñu sopp la surtout laa ñu ne neen jullit ci suñu biir nuy soppee maam ji bi whatsapp group ñaanal leen di ko sàkku ci ñoom bëgg boo gis yëg moo koy fay Eye Africa TV WhatsApp group teg ko ci loxol Akon ak mboolem ku fa nekkee ñoo ngi leen nuyu di leen ndokkel di leen ziar di leen ñaanal nuyu suñu wayjur bu jigéen ci kër ga suñu soxna ak suñu doom ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi suñu kër noonu la ñuy def rek am mbégte kontante wis ko happy birthday tey mooy bésu juddum euh, soxna Baby Mariam doom ci xad yi ak kooku nga xam ne mooy ma muy Mariama Dramé ñu ngi koy wis happy birthday ba moon di 29 di ko ñaanal mbiru yaayam mm-hmm. mm-hmm. yal na dem ba ay wéyjuram lekk njëriñam ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam doo bàyyi yaayam wax naa la yaayam suma soxna la ba leen bàyyi leen suma soxna waaye ko yar ba pare yi noo ñëw yaree di ko waaw yar nga ba pare jël kay kon jàppal ne li yar moom moo gën ah. mm, loolu kay moom moom xewal la yaree ko mm. fekkee mun na nii la yaree moom mm. nañ seetaat affaire ah, waaye ci yar mi ko bokkoon man yow laa bu dee nii nga yaree waaw ah. yar rek jël mamu ne da nga yar nga jël yow bu dee nii nga yaree kay ah moom génn ci kër gi di moom kay moom boobu moom seen bos la ah ñii nuyu ko ndokkele ko ñaanal ko moom tam happy birthday in advance eh, mama Touré Touré Mandé Mori doom yaay Three Sisters yi doom yaay Khady Touré la di Ibrahima Aïssatou Si madame Diallo ak Kumba mu xoyantaan mama mu king of the arène borom septembre second Touré Mandi Mori fana fana bu mag bi borom Kunkujang happy birthday dundal ba sa may di baawan borom eh, septembre second the real princess of september 2 happy birthday to you may you witness many more years to come jërëjëf amadou mu don lu am solo comme ni ngeen ko don teunké xam nañ né aduna mom ni la rek nit ñatt yi dafa bok ci lu am solo ci taxaway li nga fekke liñ la netalil lolu bokoy bayyi xel ci jang bu nek defe ne liñ lay netalil tamit dang ci mëna jangé lu bari bari te da ngeen don wax légui lu am solo ci kelifa yi nga xam ne ñoo fi jaax mm. ñoñu ñoñu mëna xamal ñun ñoy ñan foog naa ne ku nekk dégg na ko yàgg nañ di ko waxtaanee ñun ñëpp tey ci wàllu métier bi dañuy tënk ci ne nit ki da nga war a sàmm sa ay éthiques ak yu jëm ci lu mel. waaye tey ku mel ni oncle Babacar Thiam bu mu koy tënk ci ne set euh, sellal mooy éthique ku ne xam na ne tey boo sellalee sa taxawaay ci lépp lu munta doon ci liggéey boo munta nekk di nga lamboo éthique yu nga xam ne bu dul sax du méccum tasum xibaar ak métier bu mu mënta doon boo ci jiitee sellal. yow di nga bokk ci ñi naw di nga bokk ci ñi nawloo métier bu nekk dafa am éthique on a tey ministre bi directeur bi mooy li ñu doon wax démb ñawkat bi sax waaw tey journalism li mhm. éthique bi mooy auto office bi nga def on a because you have to be somebody who is very principled in a sense of your principality mooy nga nem nga ànd ak ethics yi nga xam ne moo lay guide towards left and right of your center of what you're doing understand nga xam lii mooy ndeyjoor lii mooy càmmooy lan nga war a def ak lan nga warta def lan ngay jombale sa bopp understand nga nattee ko sa bopp ci liggéey bi te loolu defe naan li ñu ko mën a xamal rek mooy faaw ñuy fàttaliku ci ginnaaw di xam fan la ñu jógee te loolu ñi nga xam ne ñoo jiitu ci métier bi comme niñ ko waxee ñoom oncle Pape Sène yu neem dem ñoo ñëpp tey koo ci gis bu amul sax ci métier bi tey lu ñuy tudd boo dajee moom da nga koy nawloo mm-hmm. te jikko moo tax te am si raaya yu bëri ah. am ci nga xam ne tey buñ la ko wonoon buñ la ko wonoon macha allah mm-hmm. mm-hmm. dañu war a feeñ dem naa kiram raaya bi di wax bi dañu a wax ak nit wax ak réew xam nga réew mi is very unfortunate président boo gi daanaka président yi Afrique yëpp ne waa xam nga li xew mooy ñu ngi bind de waaye dañoo génn ci télé yi ci rajo yi xam nga Amadou luy problème bi réew mi réew mi is very unfortunate ñoom oncle Moses Ndène oncle mhm. Peter Gomez ñëpp ñu ngi existe ñu ngi si fiil bi ñu ngi si fiil bi Dramé oncle ñooñu yëpp tey war nañoo mën a génn frequently di wax jàngal ndaw ñi démba mhm. euh, sax doxalin réew mi ni mhm. réew mi doon doxee démb in terms of governance xam nga xam nga loolu moo tax may la réew mi dafa am nu muy tëddee ñoom seen yaakaar suba réew mi dafa am nu muy tëddee que am na yëf yi fu moo toll mm-hmm. nga gis ñoom ñoo jàngalekat am 3 days workshop 3 days workshop ne jënal am na lu si dugg lu si bokk waaw soo ñoom bëgg nañ ko seppi tegee fële te lëg dëgg la mm-hmm. loolu mu amee am nga am na training buñ dem yàggul mm-hmm. pour ñi ngay wax ne ñoom mënuñu mënuñoo contrôler social zone bi non loolu moom xam nga loolu dëgg la waaye daf si am lu nga xam ne ni tam Uh, journal comme like uh, kii media council presse media council ak. Uh, Gambia presse ba waaw GPO. am na si lu nga xam ne daje nañ sa presse waaw parce que bu mau si mau ini mu parce que dafa am bagage indi media council bi. pour jubbanti ñooñu saytu mu parce que lii problème maam sa online tam di dem di wax lu la mbubboo na yow da nga am mbubbi journaliste. waaw ah, di wax loolu yaaxal loolu tam loolu tam maam. wax nga mos mos of it li li li tax mooy lu ma la wax mooy dëkk bi dëkk dëkk bi is very unfortunate because tey ñu mel ni ñoom oncle Modou Diouf ñu mel ni tey ñoom oncle Pape seen ñu mel ni tey ñoom oncle euh, ki nga xam ne moom moo nekk monsieur Diop ñëpp soo gisee tey. ñoom seriñ Faye ñu limite seen bopp ci lu bari mooy dañ tollu ci trent yi jamono bu nga xam ne as you see tey fi ngay toog nga wax ci xam-xam wax ci li nga fekkee démb natt sa tolluwaayu tey ak lan lañ jublu ëllëg boo fa waxee tey maintenant Amadou mooy jóg fële génn ne kii dafa xam dara ñii nii ñii na si ñu nga xam ne ñoom tey mënu ñoo jël dat résistant kilifa yëpp tey soo gisee ñoom ñëpp tey boo waxee parce que réew mi tey am na li ni dama dee image réew yu bari nga lu kat bu ñu parce que bu ñu waxee lu nga am na ni Nigeria seen media bi nga xool Sénégal for example ñu ñoo ñu jege. dañu xam ak ci yeneen secteur léegoo leen leen di indi. Mhm. waaw si dalal leen. ñu wax réew mi dem in terms of nguuri Jawara naka la meloon. seen doxalin bi nguuri Yaya Jammeh ak tey fu ñu toll ci nguuri président Ba ak den réew mi ban yaakaar lañ am ak governance bi ak ju mel noonu. ak lan mooy lan and response because tey media is very media is the force. bari di tàkk bi si Afrique dañ si boppam la dekkal ba pare waaw loolu la seen media moo nekk ñenteeli bànqaas yu nga xam ne dañ war a doxal réew waaye loolu tey ci réew mi dañ ko nasaxal nasax bu nga xam ne yow saa yoo ci waxee duñ déglu sa wax de dañ lay nattee dëkkal la fenn mm, léegi nag ñu mel noonu ñoom liñ gëmoon ak jamono bañ daan wax li ñuy wax mooy di realities of li doon xew kenn du leen doon associé fen waaye right now soo waxee in the positive aspect of it ñu ne noo pro government la soo waxee at the negative aspect of it ñu ne opposition la. soo at the nga réserve sa bopp exactly léegi nag ñu mel noonu tey li ñoo def rek mooy ñoom dañuy jàpp seen jàmbur. ñu toog di seetaan comme ñëpp waaye tey koo ci wax ak tey mun na laa wax ci lu nga xam ne tey boo ko waxoon opposition bi mun nañ cee jànge mm-hmm. xool démb nan la opposition di doxale nguur mun na cee jànge xool nguur nan la doon doxale démb mm-hmm. man journaliste wala media personnel bu ndaw bi nekk ci media war naa cee mun a jànge ba xam lan mooy doon suma ëllëg mm-hmm. ba bokk ci ñi nga xam ne taxawaayu tey ëllëg dina bon ci ñi nga waaye réew mi dañ am problème am feebar bu nga xam yàgg naa di ko wax Gambia dañuy suul jëf manasan Gambia loolu mooy suñ problème te boobu programme bi koo def mu ala nuróoroo mooy right now ah. mm. tala comme tey nii talaata si guddi oncle Moses Nder mu ngi koo def soo ko programme bu moo def nit ñu fay kool man dama defoon ne ma ne ñun yëpp ñu ngi ci Gambie fii mm-hmm. fi ak ñi nga xamante ne lu ñu fi def non Gambie ñun dañ am rich history am borom xam-xam ñi nga xamante ñu ngi ci réew mi ak ñu nekk ci biti am ñu sacrifice réew mi am na ñu def lu bëri pour Gambia oh, waaye soo do nit ñi xamañ ko surtout génération bii nii mm-hmm. da ngay foog ne ñu fi xew nii rek ñoom ñoo fi mos a nekk it's very sad waaye boo ko dégloo people call ñuy def testimony di wax fii di wax Banjul di wax Gambia di diw moo def lii xam nga loolu dana ñëw ma ne ma ne non yooyu dafa may yóbbu tey exemple soo xoolee soo xoolee in the media fatality soo xoolee in the media exemple rek laa laa jox tey mu leex la ne tey yow boo demee tey any media house ci biir réew mi Amadou xam na fa xàmme na fa ku nga xam ne tey ñoom ñaar am na luñ sekk on sàng waaye tey da ngaa gis ne so many often of lii xew ci media bi right now media personnel yi sax enemism lañ def seen boppa just recently rek xoolal week ago diggante Fatou Camara ak Fatou Touré on sa ñëpp dañ toog xool ne ñii tey ñi waroon na nekk ñu xool contexte of media ñooñu ñu xool ñi as ayon édition yu nga xam ne on sa nga ñëpp tey dañu war a reference of examples yu nga xam ne Mariama Thiam mi fi nekk tey war naa jàngat ci ñoom jël leen exemple on sa nga ki nga xam ne moom moo nekk Julde war naa jël si ñoom exemple euh, Mariama Dem war naa jël ci ñoom exemple ñoom Jeena ba Sonko exemple comme ñu name them like that on sa because man bu ma gisee Fat Cissé mu génn on sa nga bind ci ñoom su ma yaram dafa daw ma ne tey kii de doon ndaw taxaw wax ak ñii ci kaddu yu nga xam ne tey kenn waratu na séntu lu mel nii ba ko dañu waroon a bokk di xàcceendoo di dóorandoor pour luy tax tey ñi gis media Gambia mu raw daan xàcceendoo di dóorandoor waaw loolu la la moo tax ñi ñu gis ne tey ñi waroon a dem ba gis ci ñoom onosaan nga lu mel ni Degen Simer onosaan nga lu mel ni tey Eva Tra lu mel ni tey ñenn journaliste yu mag yu nga xam ne wala media personnel yi nekk Sénégal parce que ñoom am nañ capabilité bi am nañ professionnalisme bi. am nañ yéene bi ñu ngi bay seen waar ñu ngi def lu nekk. waaye dañuy dem exactement is bu ko ku ne am na kër di employé ay nit. léegi dañuy dem ba nga xam ne yow doo gis sax luy tax nit di gis nawloo. so loolu yëpp na ma politique politique moo si dugg non li ma wax loolu sax dañ romb dañ romb non fi ma la waxee loolu benn la mooy fi ma la waxee bokk si politique association bi mooy ne Amadou booxee at the right path nga ne Amadou fii la far Amadou booxee negative side ñu war a wax fii la far ñu moom fuñ far moom dafa dafa waaw loolu laa la waaw loolu laa du wax moo leen ne yow man ak yow associé seen bopp non is what toog every day on a nga di def programme di ànd ak guddeeg bëccëg amuñ benn political belief loolu it it happen lan la war a def suñ social life ñoom man man a yow bokk fenn waaye ñoom ku si ne dafa am foo foo foo wane ne a bokk dama a sax xam nga loolu ñoom loolu moo leen boole waaw waaye ci ku ne di def liggéeyam goo ma ne daanaka soo xoolee sax Gambie on am na ak nu mu demee Fat Camara am na am na lu mu def si réew mi waaw non loolu moom loolu am na lu nga xam ne ni si réew a dugg si nekk si demoon ba jiite fi comme fu fu yaa amee fu mu nekk nii. waaw you know. soo soo non dëgg dëgg moom tam. non loolu loolu loolu it wasn't very unfortunate scenario but then soo xoolee ne broader perspective nga gis loolu yëpp ci media bi daf ñoo woon ne. am na lu ñu mën a defaraat lu bëri. am na lu ñu mën a seetaan lu bëri. waaye moo tax ma ne la ñu war a wax ñu ñu wax nii tey. kilifa yi bu ñu war a tey du ñu toog leen. xam naa ne loolu man xam ma kan mooy kan mooy am chance boobu de. Mm-hmm. ñu mel ba indi ñaar wala ñetti ñoom ci benn plateforme ñuy wax ci réew mi wax media bi surtout ah man bo programme dana nek waaw man gitu. amoon na opportunity pour alay Thiam waye dina try oncle Moses dajé nañ last time nga fexé bolé doyen yu ñu ñew waaw ñëw Alaye Thiam yàlla yërëm ko xare ko ajal man yooyu ay ay ay bu oncle oncle oncle kii wax ni da nga leen soy wax ak ñom sax dañu bëgg a waye amna lu ñuy soorale tamit té lo da ngay understand sen position somehow réew bi mo fa toll man gëm naa mu ñu ko man oncle Pape oncle pap suñu dajé bu mujj ci wéru koor bi la woon dañu jàngalé fixoon nañ sax mu ne mané légui amul problème nañ ko def anytime after weeru koor <laughs> waaye after weeru koor ñu jógee <laughs> fa political an ci def suñ kéem tolluwaay loolu loolu mënut a ci waxtaan bi xam naa ne it's almost 9:23 uh, so by half past laa bëgg a ñu tàmbali ci waxtaan parce que tey naa luñ bëgg a waxtaan am naa naa surprise hmm. beneen bi affaire covid parce que WHO dañ ci waxaat ñu ne am nañ ci concern affaire yi commencé naa jogaat. te ñu ngi <laughs> loolu <laughs> te loolu. Ah. ñu ne réew yëpp nañ ci teel a jóg bàyyi seen xel. Euh, fagande ko loolu ah, du sumay wax WHO directeur bi bu moo ko te report moom fi dinaa ko indi beneen point bi ah, ci ñëw pour ñu waxtaanee ko parce que lu xew la xibaar la te c'est global Euh, Gambie ci àdduna bi la bokk te ñu ngi ko daanaka ñu ngi te euh, teel nañ wax. par nit ñi kay nañ ko tuddee Covid 2023 waaw euh, exactly Covid 19 dina bokk te li ñu waxtaan beneen bi mooy. Hmm. foog ñu dellu Niger. because situation bi mu ngi gën a interesting diggante Niger ak France xaw ma naka lañ ko mën a jàngate interpretation bi. junta bi dafa joxoon Niger seen ambassade bi ñaari fan 48 hours pour mu bàyyi seen dëkk bi. Hmm, français français si suñu ne dafa génn Macron moom moo ci mujjee wax président bu France. mu ne sax dafa kontaan bu baax ci ambassadeur bi parce que génnut euh, li nga xamante ne moom mooy Niger wax na ci lu ci bees mooy junta bi tamit euh, ci report yu mujjee génn dañ jël dogal suspend mooy dakkal lekk ak électricité ak ndox pour dem ci French ambassadeur bi euh, foofu la yëf yi toll dinañ ci def jàngat ci waxtaan bi but just quickly rek ku nekk maybe two minutes ci wala one minute sax by half past mooy dafa am constant yu may jot. toujours mooy lekk yu ñoo jaay ci dëkk bi euh, foog ñu gan cee taxaw expire dafa lu ñoo bari lu ñoo jaay dafa mel ni dafa expire wala sax ñoom ñu sensé date bi food safety seen taxawaay war nañ koo gën a seetaat gën koo yokk ñu seet euh, seetu li nga xamante ne moom mooy li ñoo lekk ci dëkk bi am na recently ki ma wax dafa dem ci bitik jënd benn mayonnaise expire wu date bi waaye fu ñu ko teg ci kaw xam naa ne weer tàngaay bi la mm. affaire dem na ba ciiñ soo loolu mu doon problème nga dem waaye exactly waaw man man démb démb si suba soo tamit soo demee ci marché bi tamit démb si suba rek foofu mm-hmm. nit ñi lu gën a yomba yu ñoo jaay nit ñi di ko jënd fekk dafa expire wala ay one week moo des two weeks moo des nit ñi profito yooyu food safety war na cee mën a tax non li ngay wax sax li koy dëggal foofu la ñu njëkkee nga ne euh, wala ñu njëkkee non loolu cof la ni rek bokkut Naija ok Naija man li ma siy wax rek mooy ne Naija bi dama bëgg nga wax ci tuuti rek ci lekk bi leen ñu nem ne neja mooy topic bi neja lekk bi li ma am mooy ne démb rek man jot naa information boobu understand Obaltine bu nga xam ne ñu ngi koy jaay ci bitig bi te dafa expire borom daf ko jënd ba pare mu ñëw mu xool expiring date bi fekk expire na 2023 march

lépp loo fa gis ñu koy jaay. Hmm. soo xoolee expiring date bi luy jar twenty five dollars yi ten dollars lañ koy jaay luy jar fifteen dollars ñee la five dollars. si réew mu nga xam ne nii. waaw lépp dafa expire dañ koy jënd. waaw te dañ koy jënd noo gudd noo baat surtout yëfi xale yi yogot bi yogot bi dafa expire understand Nescafé yi fa nekk dafa expire biscuit bi dafa expire you name them you name them nekk foofu dafa expire loolu responsibility responsibility food safety la pour ñu jël ci wax naa leen ko may leen man li ma leen wax Amadou gis nga man ah. dama gëm ne yenn coppitef yu ñuy def ci ay tur ak yooyu ñun bëtafel biñ xamoon moo gënoon a effective this food safety benn institution la waaye lan mooy doxalin waaw loolu laa la ma change tour waaye commitment boobu laa la in terms of jànga in terms of competence ak matériel yu ñu am right now effectiveness effective na fi Botafel effective na fi Botafel ak ak tànk di ko doxee ak. condition yi métti wute yu wutee condition yi. am loolu ma ne ñin ñi nga xam ne tey néew nañ ay at sax ci réew mi xam nañ ne sef safety tey mooy Botafel démb Botafel démb nu mu effective woon understand ci biir réew mi foo wër lekk booy munta jaay balaa nga koo jaay yow yaa koy njëkk a ñam. understand léegi gisatuñ loolu. après da nga am kayit da nga am kayit kayit guy wane ne yow da am luy leeral ne lekk bi da nga ko war a jaay. yow sax wér nga loolu doo wax na is because of dañ dañ coo dañ waxuma ceeñ tur de ma xam nga dama bëgg nit ñi déglu ñu understand bi. is what am saying taxawaay bi moom mooy problème. waaye am saying am saying ma ne food safety moo nekkoon Butafel botafel bi effectif woon démba moo effectifu tey benn nit ñi tey ñu am ci xel mu tey because botafel démba foo waroon ci dëkk bi nga gis ñu ngi dem di xool si saytu ah, lekk yi waaye tey botafel boobu mooy food safety bi nga xam ne Gambien si yëpp seen xel daf ci tey bi ko nekkuñ di ci gis seen boppa léegi nag ñoom nañ delloo si démba la botafel doon doxalee ci commitment bi ñu amoon ci farlu bi ñu farlu woon ba tey nit ñi gis ne food safety bi fi nekk nii hmm. effective na to an extent of more than sax ni Botofel meloon démb. war na kon loolu waaw man ma si yéeme rek mooy ne. Mm-hmm. surtout si office of vice président la nekk. Mm-hmm. dafa jege trop président lu nekk office of vice président daanaka yaa ngi office yi président so what is their problème ba mënuñoo def seen liggéey loolu loolu lañ war a laaj tey dañ war a wàcc si fiil bi def ko ni ko gars yi daan defee comme maam time bi Botofel ñooñu dañ doon toog ñu ñëw si ñu ne jënaax si sa restaurant aussi sa bitig bi. di seet soo yooyu noonu liggéey yooyu moo amatul dès si time ifin poti diwlin bi bu amul ko jaayee si marché bi bu ko dañ laa wax ne boobu ah. uh, correct mun ngaa wàññi léegi nag dem defar bu la nee ah, waaye ba léegi gaa leen dee woor nag dem si bitig bi doxul dañoo ceeg soo léegi yooyu maanaam léegi leen gën a mun a am léegi leen am opportunité oto yu bëri léegi leen oto yu bëri oto yu bëri neen nga waaye bu fekkee ne région bu ne yaa ngi fa am office te office boobu boo demee bunta bi ay xob kasi ay ñofu ne so mu la laa wane office boobu nekkul di fon so lekay daw nañ ko sétal war nañ sétal lekay taxaw ci nit ñi bu baaxa baax ñu gënal ko li ñu am nañ fi problème ci garab ak yi mu lor ñu tay maybe ay ministre dem nañ ci xalé yi ko xamul lañu doon so mu lor ñu ray ñi rayel ñi ci ay ay nit yu bari so lekay yi tam mu na fi indi problème ay biir te dama la waxal ni ñun 95 bi seen loxo dessu seen gannaaw bo gisee lu daan jar 50 dalasi mu jar 10 dalasi sa heli mm. dang koy jënd neen waxante deug man sax dama sey jënd man mii léegoo la meew yi ma jënd si gis suma bopp bu baax te du ma see sa expert yi déedéet yooyu noonu nag ah. ku leen si war a dimbale mooy ku nguur sant mm-hmm. jox ko tax mu saytu ko man lu ma si dal kooku moo ko def mm-hmm. parce que bu ko bu ko contrôle du ma ko gis mm-hmm. bu ma ko amul ma muñ ko ba saa yi ma amee ma jënd ko ba réew mi dafa métti comme nu ma ko dee waxee ba nga xam ne ni lu gën a yomb lu laa jox su dund rek bu baaxee bu baaxu parce que yow da ngaa jërëjëf mu si loolu am na solo dinañ ci dinañ ci def waxtaan bu yaatu insha allah sax ñu kontaan contact for safety invite leen pour ñu ñëw wax ak euh, Gambien si ci ci mbir mi dinañ ci def waxtaan bu am solo insha allah saytu wallu lekk yi ñoo jaay ci dëkk bi ndax euh, sell na ak ñoom seen yooyu yëpp dafa am solo parce que tamit mënuñu fee toog di gis yennay di xaw euh, ñëpp di daanaka tànxam lu affaire yi ba tey euh, dara xew ñu soog a gis ñëpp jóg di wax ak ñu am seen euh, ndax comme gars yi nañu ko waxee Gambie moom xew-xew la lañ dee lañ dee lañ dee doxalee mbir mi su ko defee dañuy move on and straight to matters related to of course the unfolding or prevailing political crisis in the West African country of Niger particularly the back and forth between France and Niger. The situation is becoming very, very interesting, uh, as you can imagine, and um, because uh, France ambassador um, has remained in Niger despite being given 48 hours deadline to leave the country last Friday. Uh, French President Emmanuel Macron confirmed in a defiant speech Ambassador Sylvain uh, Ete had ordered to go amid rapid deteriorating bilateral ties but hours after the coup leader's deadline had passed, President uh, said, of course, that's Macron, he approached Mr. Ete for staying put. Now, Niger's president, Mohamed Bazoum, who was toppled on 26 July in a coup uh, that has been condemned by France and uh, many Niger's neighbors, including the West African regional bloc. Now, meanwhile, in response, probably, it is reported that the Niger junta has decided to cut off electricity, water, and food deliveries to the French embassy in Niamey, that is Niger's capital. So that is the latest development. So you might not know what will be the next move uh, from the French authorities as well, or even the junta, you can tell. But the back and forward between the two countries is becoming very, very tense and interesting, if you like. So that is the apparent situation. We want to provoke discussion around that in a moment before we'll shift our attentions to health-related issues because we want to talk about COVID-19. We all can remember COVID still, I think, around, but apparently is over as it has been declared, I think, in the Gambia. So, uh, but we have to talk about COVID because WHO is talking about COVID-19. But in the meantime, let's talk about events in Niger. Munyang, waya nga nañ ci wax di ci waxati junta bi mooy uh, soldaar yu yore Niger fu mu nekk nii uh, seen diggante ak France Niger ak France ñu bari bu mbir mi xewee ba léegi ñu ngi gis taxawaay France ñoom jàpp nañ ne ak lu mun taxaw ak lu mu mënta métti négociation ak fu ñu mënta jaar waaye coup d'état bi mënuñ koo gis mu taxaw ba ñu bàyyi mu continuer Niger lan moo ko waral ñu bari continuer di laajte ay questions ñu bari di laajte euh, lan moo tax France am taxawaay bu mel ni amuñ ko woon Guinée amuñ ko woon Burkina Faso amuñ ko sax Mali euh, ba tey waaye Niger gis taxawaay bi lu ci mujj euh, junta bi dem nañ ba gis tax daan daraka gis taxawaay bu ci France am te jàpp na sax yenn taxawaay bi ECOWAS def tax France moo nekk seen gannaaw. Euh, ñu daxa ki nga xamante ne mooy seen ambassadeur bu nekk ci réew France jox ko 48 hours daanaka ñaari fan pour mu génn euh, jekka bi te loolu àjjuma la woon waaye France seen autorités seen foreign ministre bi moom moo njëkk wax ñeen ñoo ne nanguwuñ ànduñ ci dogal bi parce que junta bi amuñ doole légitime pour daxa kenn ci dëkk boobu noonu donte ne ñoom ñoo nekk téye fii fu mu nekk ni li ci bees mooy président France bi boppam Macron dafa dal di bég sant gërëm ambassadeur bu nekk France euh, Niger mu ne ko ne gërëm na ko li tax lim des ci réew mi te dafa war a des euh, waaye daanaka ay waxtu moom moo ci des junta bi tamit daanaka dañ respond daal di dakkal courant lekk ak ndox bi nga xamante ne daf dañ koo supply wala euh, li nga xamante ne mooy French ambassadeur ba wax ne sax ñi nga xamante ñoom ñoo yore wàllu woowu ci Niger képp ki nga xamante ne continuer na nga di supply courant ak ndox ak lekk Euh, French Embassy bi yow ennemi nga ci dëkk bi ak waa dëkk bi parce que ñëpp àndoon ci fi nga xamante ne France taxawaay bu ñu am ci Niger jàngat ci situation bi fu mu toll. waaw man de man naa ne gars yi leen mën de ñàkk jom de. ñaan génnal suma suma kër nga ne doo génn lii problème bi. waaw ñu ne borom kër bi amut baat pour génne kenn. ci kër loolu wax la rek moom ak nu mu munti demee junte bi ñoo ëpp baat France ambassade boobu si dëkkam léegi ñoom ñooy nekk si si palais bi. Nah. so li li ya daga daga yabaade rombu fi na Amadou génnal suma dëgg soxlaatuma ambassadeur lo lal pour nga represent fa sen rew rek so li génnal at lu mun ta xew yow demal ba ba waxtaan amaat ba mu ne la ñëwal pour ñom basum rek mom mo mun joxe lu mal nonu mo dox wa ba ana basum ah, basum de lol wax bu ya xula amadu daga daga du respect waye junte bi nak ñoom itam man su fekkee ne am nañ doole bi nañ ko fekk si office fu mu ne takku ko ak bagage am dugal yóbbu ko dugal ko si plaine bi waaye naka nga mën a def réew bu mel nii from France am lu euh, li gars yi di wax ne one thousand five hundred soldiers sa biir dëkk te ñooñu sax mënuloo leen faa génne léegi ana souveraineté ana international community bi ak lu munta xew comme noo ko waxee tey soldat yooyu noonu ñu nekk doomi Niger yàgga si xeexal si ñoom ñoo gën a ëpp doole sañ-sañ France seen dëkk waaye dafa mel ni loolu feeñul ñu gis mooy France tey ñu la neen dafa mel ni ñoom lu leen neex mooy dox Niger. non am nañ am nañ fa dara. waaw léegi. parce que génneel su ma dëkk foofu réew boobu rek laa ko gis ambassadeur boobu demul ñun am na ñu ko def fii waaye dafa dem jàmme tuuti fa awasa la la doon may. ma ne ne Algérie def di si moom moo. ci mujj bu yàgg what is the problème ak ban ground la am ak ban background la am. waaw ah. ba kooku 48 hours mun a demul du ko recognize suñu ñii ba sax sa dégg naa sax ifin ambassadeur Niger bu nekk France. Mm-hmm. moom itam mun a recognize ñii kooku moom mun naa wax loolu parce que. ñi teguñ ko fa hmm. moom baasu moo ko fa def waaye kooku léegi nekkul di dogal kooku léngee nekkatu si loxo parce di problème is ma ne bi lu nekk si gannaawam ba mu am sañ-sañ génn la suma réew nga ne génnuloo toog ba mu am sañ-sañ kooku mënu laa ñëw yow sax génne la fi nga ne yóbbu la waaw non dégg nga kii nga problème su fekkee ne loolu amut ëllëgi junta bi jar naay xalaat kon junta bi seen ëllëg jar na xalaat su fekkee ne ñoom amuñ kattani fekk ko fu mu ne paagal ko dëbësam ah, ñu bëgg dugal ko leen loolu amuñ sañ-sañ boobu amul seen ëllëg jar naa. sañ-sañ wala ndax buñ amee sañ-sañ. mun nañ am sañ-sañ bi sa amoon. non tey bu fekkee ne yow ñu ko aar yëpp ay français ñoo fa nekk. yow naa nga demee di attaqué foofu nga xalaat xam nga loolu ñoom xam nañ loolu du option. kon pexe amul. ah pexe kay mooy lu ñu def nii léegi wax ak seen ñooñ ñi nga xam ne ñoom ñu leen di jox courant. ak lekk ñooñu ne leen jox. ñu leen léegi dàqal leen loolu. danañ leen jox seen léegi lan mooy xew. su fekkee mun mënoo génnee nekki ki sa réew jox nga ko génneel suma réew mu dem te moom dëkku fa te yow lu mu fa doon toogal pour just ambassadeur mbiri diplôme rek la boobu dog na sëy boobu tas na soo génnal nanguwul a génn loolu lu rëy mu ngi si gannaaw loolu boo ko mënul nag ifin junta bi seen elek mun naa tax suuf fekkee ne mënuñ ko faa génnee forcé amoon junta bi ëllëg seen ëllëg waaye sisu bi sisu bi moo war nekk suma biir kër man yow bu ñu amee doole nag suma biir kër man suma elek tax na suuf est ce que soutien du bazon moo indi taxawaay boobu moo indi lu mel nii non moom la waaye amoon dëgg dëgg boobu amoon lii moom man dama ko seet seet seet lan mo tax li mu am ah kon dole am na français am nañ fa dole am nañ fa dole de te lolu mu na xajamal mu na tilimal junta bi sen elek, te sen éleg óorut ci système buy dem ni fekkee ne amuñ sañ-sañ pour jëlé ko fa amulo ben pexé lu dogal dogal ci bu leen yóbbaloo lek yow lan nga fa ne loolu lañ mëna def. kana ñu mu amuñ sañ-sañ dem fa na ko ne paagal sa pagal ñu ñola fi tek oh, li mala wax kay defal la yow ba nga ko defé yow da nga bo na ambassade de France ñofa nek naka. da nga bëggoon a ambassadeur France fu mu nekk ay soldat France ñoo ko ah, wër. yow kay xam nga loolu bu fekkoon loolu kay ah, yow bu fekkoon ne ñoom ñoo nekkoon kay foofu am konoon kay demee nii wax naa la lu ëpp kay du du du du du du. du embassy bi kese américain laa dégg. loolu laa la wax américain yaa ngi fa. German yaa ngi fa waaye French yaa ngi fa 1500 soldiers 1500 troops France ñoo bees Niger. ah junta kon ñoom. ah seen ëllëg dina takk suuf. Ah, waaw loolu moo tax waaye xam nga ne France ak lu mun taxew xam naa ne doo fa ñu wax ne ñoom dañoo dal si kaw Niger xalaatee waaye loolu moo léegi ñoom ci kaw ECOWAS la ñoo taxaw di di di di wax moo tax ñu bëri jàpp ne ECOWAS lu ñoo wax dañoo dal si kaw Niger ECO France moo nekk seen gannaaw. ak yéen mun na koy góob nag. soo léegi waaw. situation bii ñu nekk man mosu gisaguma ko si àddina bi gën demal dew yow lu la nekkal réew moom. ah dara la de ku ñu wax ne nag réew moomu noonu am na lu fa gars yi di jëlee dootoo ko weddi demal dew ma. yow da nga tukki si rek demal génnu dew ma reconnaissance su ma la diw laa reconnaissance diw moom mu ñu ngi ko teg place. Mhm. nekkaatu président léegi am na ku fa ne. dëgg-dëgg Amadou yéeme na am na lu nekk si si Niger loo xam ne. Mhm. moo tax ma gëm ne. su ko lijjantiwut ak xel. waaw mun na ñaaw. te duñ si am ndam moo tax nañ ko lijjanti xel. yel. Mhm. waaye daal dem na ñëw na daal dëgg-dëgg yéeme na musuma ko dégg génnal suma kër nga ne doo génn kon yow dafa mel ni yow li nga am sama kër man aw ma ko fa. absolument kenn mënatu ko weddi. kenn mënatu ko weddi na loolu moo am te lu very sad waaw very sad ok maam sa action ci situation bi Niger ndax depuis coup d'état bi xew ba léegi ñu ngi wax moo every development wala step bu fa am rek buñ ko yégee dañu ko fee euh, jéem indi ci ci ci programme bi pour waxtaanee ko xamal tamit askan bi ak ñuy seetaan fan la yee fii toll ban jàngat nga am fii diggante Niger parce que time boobu bu ñu Niger junta bi ECOWAS dafa mel ni tegi ECOWAS saxal nañoo teggi tànk tuuti léegi ñu ne diplomatie dañoo gën a partage donte ne sax dégradé yi ñoo wax ñoom tamit seen wax bi dañ ko misinterpret whatever nuñ ko waxee du noonu lañ ko <laughs> du noonu lañ ko waxalee I don't understand but situation bi diggante Niger ak France ambassadeur bi dañ ko suspend wax ko mu génn Macron ci boppam président bu France moo ci mujjee wax te moomu nee na dafa gërëm santa ambassadeur yi ni mu desee ci Niger parce que nee na euh, junta bi amuñ benn right wala doole pour mun koo génnee ci ci ci ci dëkk boobu naa nga jàngatee situation bi <coughs> hanga nga don't want to talk about France ak Africa in part of relationship lu tax bëgguma waxtaane yi France ak uh, Africa dama gëm ne France dañuy dundee li nga xam ne mooy Africa Africa gisuñ ci seen bopp ci benn anam te ñoom ñi teg ci seen bakken bañ li ñuy dundee ñun ñu dàkkal ko dàkkal ko te Africa nag defe naa ne am na bët yu feeñ ci yeewu ci gis ne lii dafa war a dàkk démb mbuumu jaam la woon ñi takk suñuy loxo suñuy tànk suñuy maam dugal leen ci gaal yóbbu leen ci géej ñu yóbbu leen ba tugal tey nag ñun suñ xel lañ tënk suñ ñàkk ak suñ manquile lu bari ci àdduna lañ jëlee mbuumu jaam guñ tënk suñ diggante ak ñoom muy néocolonisme bi nga xam ne tey lu ci bari ay relationship bu diplomatique la ay relationship bu organisation yu nga xam ne tekkiwuñ dara ci lu ñuy dimbale ci Afrique Afrique di ci gis boppam mu doon ay mbuumi njaam yu nga xam ne ba tey dañ ko tënk Afrique te mu war a dàkk yàgg nañ di ko wax kenn ci ñin ci doomu Afrique soppootul doxalinu junta ak li nga xam ne moom moo nekk ay coup d'état foqar nguur ci lu teguwul ci yoon ndax li ci mënoon a am ci jéya ba ay doomi réew mun cee ñàkk seen bakkan dafa bëri waaye suñuy nguur ak seen doxalin ak li nga xam ne moo xew seen diggante ak yi tugal yi lu ci mel ni france dafa jot pour ñu dakkal ko ci biir li nga xam ne moom moo nekk afrique benn ñaaral mooy situation bi fi mu toll comme ni ko ñang waxee la man dama gëm ne rek ne lii yabaate weesuwul ko ci doxalin amul Ben réew ci yi africa bu nga xam ne ambassy bi fa nekk nekk ambassy réewi africain réewi tubaab yi xëy ne la ne dañ la may less than 48 hours wala 24 hours sax te doo génn seen réew amut réew bi gën a sori ci àdduna bi bu fa african réew amee li nga xam ne mooy ambassade yi bés buñ paree ne la sa ambassade yi na fi jóge nothing can stop it da nga faa jóge loolu is an open secret on sa den waay ak France ñoom ñooy kan ci àdduna bi ak lan lañ tënk seen diggante ak Naija ba tey Naija ne soxlawuñ li nga xam ne moom moo nekk ambassade bi mu nekk biir Naija ñi pare pour siisu pour loolu. Ah, Macron li mu wax loolu taxawaayam la te bettul kii àdduna bi. on sent because ku tekkiwul dara la ci lim séq ak Afrique lu dul lor Afrique lu dul am ay taalibe yu nga xam ne ñu ngi biir Afrique ñiy dox suba ngoon guddeeg bëccëg ci bëgg-bëggam ak lépp lu nga xam ne mooy yéeneem. pour luy doxal France di neenal li nga xam ne mooy réew africain ah, te Basel daf ci bokkoon waaw ah. parce que mën naa wax ne ñu bari jàpp ne situation bi nii yëpp moom moo indi réewam bi loolu laa la wax nii nekk tey xam nga lu tax tey boo demee jël may leen ëpp ci ñu indi seen ay bagage di ak seen ay troupes sa biir dëkka yaa ngi am ay soldats daanaka lépp luy dugg lépp luy génn ci réew ñoom ñoo la ko gën a xam gis loolu ban façon governance système moo nekk loolu laa ma ne la ah. xam ne talibé yi gëna yees ci afrika Basel daf ci bokkoon xam nga tax moo la loon tay xolal Mali Guinée Burkina Faso yépp biñ amé problème ak ñi nga xam ne ñoo nek France fan lañ dem Naija. Ah, waaw bu le ba Mali bu leen daxé fofu lay. mujjee moom moom moo la ñëw. understand fum daxé français fofu lay léegi nag lii mooy lépp too fay too. understand te interestingly maam foofu good point la parce que. Euh, Mali bu junta bi ñëwee dañ génnee gars dañ génn. dañ génn tan doon ne junta la doo leen wane doo leen fi nekkaat. they move so why this ñu ne kii mu génn. ñu ne de he is not moving an inch. te di di partnership of relationship of diplomacy bi xew diggante Mali ak Niger di seen mooy just colonisation la. Mali France France. France moo colonise. Euh, Niger moo colonise Mali. ak Guinée Mali dem nañ Guinée gi ñoom ñëpp dem nañ ba gis ne. ñoom buggatuñ benn relationship seen diggante ak france yi. ñu dàq seen li nga xam ne mooy ambassade France accepte loolu waaye bi ñu leen dàqee tey all seen doole yi nga xam ne ñoom lañ doon def muy ñi nekk Loudin of Africa dañ dem teg seen soldats yi biir Niger. maanaam tey yaakaar boobu rek lañ am waaye léegi fi nga xamee ne ECOWAS tey bu fekkente ne ñoom ñu ne li leen tax a jóg mooy dooleel koom-koomu li nga xam ne mooy West Africa France nekk seen gannaaw ñoom ñu ne nañ waxtaan ak li nga xam ne mooy junta bi pour di man waxoon leen ko fii may leen ne. junta bi duñ fa jógee Bazoul du delluwaat nekk président loolu mënut a nekk. gars taxawaay boobu lañ am ba léegi. parce que te loolu mun a nekk jug nañ dem ne ñoom gom ne diplomatique negotiations wala efforts yu nekk di am. Ah waaye moom la ñuy wax ne jàpp saaf after three years ñu dem élection loolu dañ ne loolu dara waaw léegi dara that is internal of that country te junta bi right now ñooy doxal everything la lu xam ne internal yi réew mi la. non ba den question now di sovereignty ana internal boobu noonu bu fekkee ne. lii loolu daal ma ne. yow yaa ngi yore sa réew ma ne. non doxaluñ everything. non am interférence buy am. interférence buy am noonu suma kër génn waaw loolu laa la ma ne. Ah. xam nga lu tax mooy ay dog électricité léegi. non is what ah. bi ngeen di wax noonu noonu ECOWAS ñoom ñoo nekk ci ginnaaw France France ñoo nekk ci ginnaaw ECOWAS. waaw complicité on la. complicité boobu nag moo tax right now junta bi tamit dafa am lu nga xam ne dañ koy sóoraale li ñuy sóoraale rek mooy ne ñoom duñ taxaw wara a face two enemies at the same time. parce que xam nga right now dañoo bëgg a jeexal ak ennemi bi ba pare muy ECOWAS bi nga xam ne am na ku nekk si gannaawam léegi France gis nañ ne ECOWAS. nekkuñ di wane effort yi nga xam ne ñoom loolu lañ bëgg because France lii seen taxawaay rek mooy. Ah. nañ attaque junta bi. moom loolu moom nañ leen attaque ñu génne leen léegi ñoom a de nangu. waaw léegi ñoom ñooy ñan ñoom Bazoum have to come exactly. waaw pour a dee France a des yaa ngi toog ci biti. soo gisee ECOWAS nag seen ñoom ñoo bañ a génn nañ la. kan ñi nga wax France ñoom la ñoom ñoo bañ a génn nay tax seen benn seen benn doom moo bañ a génn nay te nay jamonoñ si dara seen benn doom nekku fa ah. non non loolu moom pareegul man loolu moom man amoon laa am waaw léegi ah, problème boobu waaw ils ont comme ça loolu la ma ne ñoom ñoom ñu rëy yow génnal nga gi bañ a génn. non comme laaj dafa wax ne ñooñu ñan est-ce que français yi nekk maam li ma mooy fan lañ mën a fan lañ teg loolu man loolu nga laa si gis ah? doole laa si gis xam nga doole boobu jaay ah, doole kay xam nga doole boobu lu leen ko may mooy hmm? ñi nga xam ne tey ñoom ñoo fa war a nekk pour régler problème bi muy ECOWAS seen boppa ah, ñoom ñoo nekk sikki ñu nga xam ne jamono bi dafa sayt gestu moo leen yóbbaale benn position lañ moom yoonu ECOWAS nekkul si non ah, kay non xam nga lii ñoom dañ see jël opportunité bu fekkee ne ñoom dañ bëgg a base ñëwaat te lii isan opportunité kële na la génnuma parce que recognize ma la tegaloo ma fi ECOWAS xeebalee daf koo tël as opportunité ba dem na ñëw na loolu moo warul nag non ECOWAS yoo xam nga dafa bëgg a génne junta bi. ECOWAS seen taxawaay moom waaw ECOWAS ak France ñoo bokk benn taxawaay. waaw loolu laa la wax pour junta bi waaw ñoom waaw. waaw kon kon lan la ñu duñ am ak ñoom problème dañ ko koy dañu mën na bokk xee bi sax waaye. loolu la loolu la mooy est-ce que noonu la war a demee problème is there is no ECOWAS yet soldier ECOWAS intervention militaire dem ak amagul. waaw loolu waaye. français ñoo fa nekk waaye mu xam nga mu ngi ñu ngi stand by. ñu ngi waaw ok ñu ngi stand by. waaw xam naa loolu li ñu wax léegi ndax mënuñoo capitaliser opportunité gisuma dëkk bu demagum man ndax mënuñoo capitaliser opportunité bi commitment ñoom dañuy joxe seen loolu la ma ne Sénégal Togo Côte d'Ivoire noonu la bon loolu ñu ñoo xaar dañoo ne dañoo exploit dañoo jël luñ ko def sax coow li mooy nit ñi dangaam rek soo gisee seen ah. approche boobu amut amut amut amut amut amut support amut support parce que lu ñu ak France moom moo France lu ñoo def ni ñu bëri jàpp ne ECOWAS ñooy ànd ak ñoom ci lii parce que ECOWAS kon dem lu mel ni gis loolu lu mel noonu parce que nous non en France. ko na fe France. parce que dafa bëgg ki ñëw. Ki ne bëggut dem. wa légui mam loolu la problème mooy ne France sañ la ak France ben xalaat leen fi combat bi parce que di problème is ne gënal nga ne te parce que ñom dañuy parce que a dañuy recognize woon. recognize junta gis nga a indi problème leen mu neex la mu ko place lu tax doo reconnaître ko tek ben place loolu mu neex len mu naare junta bi ñoo koy amee problème is junta bi tam mo amu doole amu pexé be ma mo war la guéné ben ambassadeur munuma munta dem ba amo si ben pexe li du dog rangam ñaka dog lekkam sa biir dëkk ah, kon ëllëgi junta bobu tam junta bi gum naani ne mun leen continuer di gën a néew doole si seen dëkk wa ñoom seen éleg dal sen éleg lérut amu wa est-ce que fogu lo ne parce que lolu amul Mali amul Burkina amul Guinée. lu tax mu am fii waaye soldaar yu nekkoon Mali wax naa ne léegi léegi ñoom lañ dàq génn ñoo Niger maam moom la ko wax. waaw nag yan yan naka lañ leen ñooñu daaxee bañ génn. dafa mel ni léegi France dafa sës si fenn si. bu ko bu ñu la daaxee Burkina demoon na Mali yi ñu daaxale fële. seen alaay dafa mel ni ñoom. xarit buñ am moo des waaw xarit buñ am ci West Afrique wala Afrique bu dëgër. mooy Niger woon Niger ak Bazoum léegi boobu nag bu demee bi war a dog pour ñoom. foog ñu mat njaaxum la moo tax ñu téye fuñ téye ndengeej. waaw loolu tam loolu loolu waaw affaire yi ñu ne buum bi du dog te maam lu mu waxee buum bi foog mu dog léegi maam. tooñ dëgg la maam billaay. dog lekka dog dog dog kuréel ndax loolu solution la si situation bi. no hundred thousand times solution la in a sense ne resistance no of course waa xam nga dañuy waxtaan waaw dama la hundred thousand bi moo bëri <laughs> waaw no solution la hundred thousand times xam nga dama <laughs> lool waaw Nigeria ak Niger bi problème bi starté lan moo nekkoon force atemu Nigeria. waaw dagg Crane bi ñu jox Niger. waaw moo sànn loolu moo nekkoon force atem gis nga option A bu sottiwut option bii dafaa sotti te dama ne junta bi mun nañoo génnee ambassade bu France in Niger. moo sànn waaye junta bi dañ am. problème bu nga xam ne right now ñu ngi face mooy ne ñaari combat moo nekk seen kanam loolu laa la ma léegi yow mun ngaa song France seen soldat yooyu noonu ñoom ñu gën laa ah. am gën laa am xanaa ñoom ñoo war a ambassade man gisuma benn ambassade ambassadeur sa waa dëkk di la aar police dëkk boobu ñoo lay aar parce que situation bi nu mu demee la France dañu xam ne situation bi léegi nekkatoo ci loxo basum dañoo jël seen responsabilité te dañ teel a wax junta bi ñu ne seen doomi réew bu nekk France li ko dal junta bi su held responsible waaw loolu du yabaate ci réewi jàmbur loolu laa la ma xam nga foog ñuy waxante lii dëgga loolu yëpp mooy yabaate bi nga xam ne France daf ko séq ak réewi Afrika yi te lu war a dàkk la bi fitna bu fa munta am français yu ñooy njëkk a wax ne nañ aar seen doom yi réewu jàmbur am problème problème bi doom yi réew yi kese la diggante nguur gi la ak soldaar yi lan moo ci yoonu beneen réew te ma yokkal la ne gis nga affaire yi nda attaque dina am wala du am ci saa si tàng-tàng bi ñoom dañ ñëw withdraw seen doom yi yëpp génnee leen bàyyi fa ambassadeur bi waaye yeneen doom yi nga xam citizen ñu ngi yoon ci dëkk bi ñëw holiday wala wala ba yeneen bis ñëpp lañ génne Germany def ko America def ko tubaab yi yëpp ñu jël seen doom génne léegi bu attaque amee ñan ñooy dee waaw léegi mu des ñoom seen soldat yi déedéet yaa ngi waaye léegi attaque bu amee mission lañ ñooy dee euh, léegi yow ngay pousse nit ñi pour ñu dem attaque waaw léegi assez africain tey exemple ah, assez africain lan moo war a nekk responsibility African Union as a organisation pour xam ne tey ñoom interest bi France am ba bugg a teg bakkanam ci Niger onasan ba tax tey lim ñàkk a Mali lim ñàkk a Burkina lim ñàkk a Guinée mu ne loolu du ko mop onasan du ko mun a ñàkk a Niger lan la yow xam nga ko man xam naa ko uranium lu ñoo jël di waaw uranium tey uranium bu ñoo luut noonu tey ana ban interest la ci Naija am towards development visibly dégg naa benn expert di wax uranium bu ñu France di jëlee Niger 70 hmm. percent au 60 France seen courant bi foofu lañ ko jëlee si Niger boobu France loolu la ñoo yóbbu defee waaw def ko wala xam nga foofu lañ koo defar supply bi ñu ñu jot ko xam nga buñ ko buñ jëlee loolu la use 60% off. look at that te uh, France xam nga ne courant du fa def. léegi ñoom 5 ah, mu ne ñu ne bu ñu am 5 point something la ñu am benefit Niger percentage 5 point benn expert laa dégg mu ko wax I don't know how true it but doomi Niger la mu ne moom dafa support junta bi mu cee wax. ni ñoom loolu moo leen naqari te Bazoum moom moo nangul leen moo leen nangul loolu. loolu laa la ma ne ku fa nekkoon nag balaa Bazoum. mooy moom kooku moo indi Bazoum. Basul dañ ko togg yàq du loolu Basul daf ko fekk. loolu la waaye eh, Basul tey dem na bu ñëwee day nangu day nangu too yooyu kooku daanaka Basul. ko naa dañ ko kuwoon Mohamed Youssouf xaw ma something lay def moo fa nekkoon. Ibrahima may dañ ko kuwoon foog naa ne. waaw ah, non Niger démocrate élection ñu ko def balaa Bazoum di ñëw ku fa nekkoon dafa saaf tout temps. mu jeexal mu jeexal mu ñëw indi Bazoum kooku mu nii la woon kooku mu ñëw mu indi Bazoum moom moo ko moo imposé Bazoum. non loolu laa la wax nag moo tax may la français yow nga te loolu moo war a dàkk. Nigeria leen gars yi ba mu ko def seen ay waaw def seen labaj labaj. dem bi la ngi koot léegi moo tax moom tamit bëgg na tubaab bi recognize ko lu nekk mu ànd ci prime param ni Tinubu yëpp recognition lay ut parce que xam nga ne Nigeria moom ëpp la ut process baa ngi court léegi bugg na France endorse ko United Nations mu ngi war a dem America mu disee Biden xaw ma next week xaw ma septembre yooyu yëpp waaw li a wax rek mooy ne gis nga ñun ñun problème bi ñu am ak français yi problème boobu dañ ko war a dàkkal alasan tax lañ koy dàkkal ay la yëwén ne ñun ñëpp xam nañ ne du best solution of coup d'état yi am dañ soxla governance of administration yi nga xam ne dañoo pare pour ñëw mu nekk win-win situation understand nañ ne ñun matalewuñ lu bëri yàlla moo ñu teg natt boobu understand nga waaye tey ak lu mun taxew am na yàlla lum ñu may muy natural resources yu nga xam ne ñoom ñu ngi koy jël si fii di ko mun a jëfandikoo suñ géej gi jën yi fi nekk ñu ngi ko mën a jël di ko jëfandikoo suñ àll bi banta yi fi nekk ñu ngi koy mën a jël di ko jëfandikoo Naija hmm. li fa nekk ci minéral ak natural resources Guinée noonu Burkina Faso noonu Mali noonu loolu yëpp tey bu koy français yi di jël hmm. di ko mën a jëriñoo ñun war nañ cee mën a gis suñ bopp xam nga loolu rek laa wax problème bi yëpp tamit ci ñun la parce que at ñun ñoo koy nangu beneen xaw parce que suñ waaw loolu dafa am kilifa yuñ teg waaw loolu mooy problème bi kilifa yooyu nag ñoo tegul blame fukk wala bi ñin la ah, problème bi suñuy nguur la loolu moy problème xoolal xoolal xoolal election yi xew Zimbabwe for example barki demo ñi depuis independent ben political party mo fa nek president jano jano jano jano pf party muga bi nek na fa be be de beñu beñu rek rey wala ba de ku koy don mo mo fa nek election buñ def barki démo ken xamul naka Gabon mu ngi ni ben family depuis bobu depuis Umar Bongo léegi domam bi Ali Bongo Munta dosa, paralyze na ba léegi bu ga sisu ci nguur gi loolu moo ne fu mu dem salfaañi constitution war a dem taataam forcé léegi African Union ana leen mu ngi nii dem dem def élection benn international media demul fa. ñu ñu Gabon. ñu coupé li nga waaw coupé li nga internet. yaa network bépp la gaa yi fay. ba élection bi international media kenn demut. moo win. xay xam nga ne moom mooy win. loolu amul demaa ñëw. Zimbabwe yooyu mooy xew Afrique ñu ne ñun dañ bëgg a. libéré suñu bopp léegi loolu tamit naka lay doon forcé dem tàttaam waaye lu bëri sax si tubaab bi sax ak. yenen afrique yi sax daanaka ben famille la nag ñoo fa dee Angleterre gi lool mo fa ne. waaw ñoo commune yooyu ba légui ñaata am na prime minister dañ def election wa dara yeb ben la. lool du problème bi amul problème bi da moy ne. Hmm. njëriñ ñoo wara xam suñ boppa ñu bëggal ñu bëgg suñ njëriñ deug la amna lu bëri suñ ko amee mënuñ ko jëfëndiko ba ki ko war a ñëw neen wax ak moom leer ñu gis ci suñ bop mo luma d'accord jël pépp jël peut-être yóbbu bàyyi ñu loxo neen lool mom dëkk bu ko agri rek yow da nga ñak fay man d'accord mo lool dëgg dëgg d'accord ma loolu. nay yàlla loolu moo fa ne te ñoom loolu lañ dunda. te loolu moo gën a ci li tax tey kenn buggul a dégg sa français yi di wax lu jëm ci nay ja lu dul ne. sëy bi dafa war a tas te sëy bi bu tasee ba ñu ma diplomatique taay mun naa am everywhere in the world every African countries deserve nga pour nga am diplomatique bilateral cooperation bilateral cooperation with every international community. te France dafa bokk ci international community. waaye nag waaye in one di wé ñom ñi ñi ñekk di jëfandikoo dafa metti dafa daw yaram téré leen gëna a mandu de. ah téeméeri junne yoon. ñom buñ la jëriñu sa dañ la bayé sa bop waaw. Ah. Angleterre ñom buñ la ah. jëriñu dara sa dañ lay bayé sa bop waaye français yi dañuy ñëw ba paré bëgg la jëriñu yow do jëriñ sa bop motax coup d'état ci si French speaking country la gëna bari a bari right now ni ñeenti yépp ñom la. Mhm. te ñom ñëpp dem nañ dem nañ ba gis dañ leen xoc ci baat ñu bugg fippu moo waral lii yëpp. booy ñin sax dañ ci loru Amadou ñin ñu ngi ni tey exemple ñin xam nga Angleterre moo ñu colonise waaye ñin dalasi bi ñoo use lan moo ko rey ci fi ñu toll si sous-région bi CFA la. CFA la de CFA baa ko rey. te CFA bi mu ngi nii ñoom gars yi nanguwuñ ca Côte d'Ivoire ak Sénégal ñoom ñoo. ci ñoom ñoo bañ pour ñuy pour pour éco bi ñëw moom. te ñoom lu tax Côte d'Ivoire ak Sénégal bañ yëpp intérêt si France la. waaw te Macron moo fa toog. te Macron mi fa toog noonu. di fekk mu ngi fa toog di fekk Macky Sall di fekk Macky Sall ak Ouattara. rasaan nga ñu ngi toog ci diggante ñaari réew yii di ci am kaddu. lu jëm ci éco bi du am te dama laa wax ne lu ñoo dund dañoo dem te bu ñu demee lycée yow loolu affaire bu ñëw système mooy ñëwaat waaye bu ñëwee loolu laa ñan bu ñëwee dafa am lu ñuy bàyyi foofu bu fekkee ñoom seen donneef moo continuer dafa am am diggante France eh, ak feneen ko mun ta ñëw maam lu nga wax noonu d'accord ma ko de lan ay Macky kii rek moo tax loolu amul Ouattara Macky foofu la fekkal loolu d' accord Macky daf koo ko fekkal loolu d' accord loolu la waaye dafa ñëw mu rataxal liggante bi rataxalu dara ah, mënuñ si dara loolu du ñoom du ñoom ñaar du problème bi déedéet non do ah, bi yow Macky Sall te Macky dina ñëw xanaa keneen ku ñëw man éco bi kañ la they are on the control of it ñoom dañ ci am kaddu bu ñëwee dañ ko ñoom dañ ko gën a dañ ko gën a rataxal moom ak right now moom problème bi ñoom ñaar bokk nañ ci. booy loolu Macky Sall Alassane Ouattara Alassane Ouattara Côte d'Ivoire. ak non boo ma la ñoom a nekk ci bopp bi bi newoon ci jiite may friend jiite wuñ loolu. loolu africain yi ñoo ñoo dese dem rek waaye fukki réew nangam ñaar bañ loolu mënut a nekk. ñoom ñoo am power ñoom ñoo am power baal fu nga xam ne ni bàyyi leen loolu oh, Macky defu si tous mënul si dara te daf ko fa fekk dafa fekk éco agreement bi mu ngay dem non du éco waxuñ éco bi de si lan noonu pour bi ifin dafa loolu def depuis tay ni ko oh, waxee noonu maam loolu tay ni ñaata ñaata French colony ñoo yaa ngi xool Guinée dañ am doole ak du réew bu ndaw Burkina Faso du réew Mali du réew bu ndaw ci France relationship bobu nonu xëy Niger may wax rew bu ndaw la may ma rek marbal la la way senegal te ah. du rew bu ndaw way dafa am relation bu mag digene ma France Côte d'Ivoire di same thing ñoñu tay Macron lu len di deglo da dég du ko deglu ñeneen ñi oh. ñep xam nañ digante ah, Macron ak ak senegal ak dara bu wéñu ween ween contre Afrique ñun waxuñ ko dé li ma la wax ne du ñun ñoko wax ñu bari analyse politique ah. ani lolu lañ la wax so lolu is a reality so nañ ñaan rek xëy na situation bi moo déedéet wax yëpp foofu la day nekk ñaar ñee leen neexul rek waaye loolu si dëgg ñooñu mënuñoo dogal fii dara si Afrique seen réew wax ci Covid 19 euh, situation bi foofu la toll ci Niger so dañoo move on conclude ak euh, coronavirus euh, du lu bees si suñ ay nopp suñu ay waxtaan yàgg nañ cee wax so lu ci bees WHO tamit dañ ci waxaat ñu ne am nañ ci concern ndax affaire yi mu ngi dafa mel ni mu ngi soog a wala mu ngi wala ci eh, anam now we'll move on from the practical realities of you know situations in Niger to some health related issues now because the World Health Organization's Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus has said that coronavirus disease that is COVID-19 remains a threat to global health now urging countries to strengthen surveillance and reporting and also assesses the risk of new variants. Now, COVID-19 has created both economic and social challenges globally, including millions of people losing their lives and livelihoods. And our reporter, Maria Macham, tells us more of that in this report. The devastating and economic record of COVID 19 looms new worry to the World Health Organization as it announced reports of new intensive care unit admissions and even new deaths in some countries due to the virus. Briefing journalists on Friday in Geneva, Switzerland, Director General Gabrius said that despite the decline in reported cases, there are still solid cases of admissions and others. COVID remains a global health threat. Although data available to WHO continues to decline, we have seen increasing reports of hospitalizations, ICU admissions, and deaths in some countries we continue to call on all countries to strengthen surveillance, sequencing, and reporting so we can assess the risk of new variants Clinical lead of WHO's Health Emergencies Program on COVID 19, Maria Van, emphasized the importance of surveillances to keep track of its severity. The WHO reports that globally, nearly 1.5 million new COVID 19 cases and over 2,500 deaths were reported in the last 28 days between July 10 to 6 August 2023, an increase of 80% and a decrease of 57% respectively compared to the previous 28 days. While five WHO regions have reported decreases in the number of both cases and deaths, the Western Pacific region has reported an increase in cases and a decrease in deaths. The report revealed that as of 6 August 2023, there were over 769 million confirmed cases and over 6.9 million deaths reported globally. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. All right, thank you very much, MC Maria Macham, for that report on the COVID-19 related issues. As the uh, WHO Director General have indicated that um, COVID-19 remains a, I mean, a global threat or global health, um, uh, or threat to global health. So he's urging all countries, including the Gambia, to uh, strengthen um, their surveillances. So it means we should be vigilant uh, studio <clears throat> where we operate and do our stuff. So we all know what we have went through, uh, you know, during COVID, COVID-19 face masks, COVID-19 no public gathering, COVID-19 state of emergency, COVID-19, you name it. So we don't want to, we don't pray to go back to that life again. We are living our life as normal as usual. So what can we do to, to maintain that? I think it should be everyone's responsibility. But I think the authority also need to have uh, contingency plans. Now the WHO is talking. I think uh, there are new variants that have started emerging, and I think our health authorities need to be very much cautious of that and be wary of the, uh, the, the, the, consequences, and of course, start to remind the people, the public, about what we all should do or should be doing. I think this is main reason why uh, Swin Minister don't every Gambian seemingly have, you know, relinquished all uh, about face mask mom be léegi su demee samate mom-mom mo face mask la so as a doctor maybe he knows ne Don't tell ni ñu wax ni li jeex but maybe in the long run mun naa re-emerge here and there so I think ñun yépp war nañ ko emulate ma ma ma ñang teddu ñu wara solat fak fa max yi waat. lu sol ci face mask buñ ko buñ ko wéccion xaliss so mo dum upp budget bi sax daa doon su fekkee def ko doon jënd. waaw nga ñu am. dina ëpp budget tamit. dañu soblaay fii lu lu lu lu bëri. waaw bu doon dañu liggéey dina ëpp budget ministre so on est really on on on a serious uh, more serious note WHO ñu ne Covid uh, ba léegi daanaka traite la ci suñu ay wér yaram te ñu ngi ooj réew bu nekk mu am tax seet sa taxawaay uh, pour mun a saytu mbir yi bañ cee ñu bañ a dundaat daal dundoon dem na ñëw na ñëpp xam ne Covid bu mu fi jaan mais loraange bu mu fi indi te ñu ngi téla artu dal fatali ku nekk sa wala sa responsibility euh, buñ ci togaaté tay di wara waxtan affaire covid 19 moy mbass bu fi jaanon xamna né du neex nak euh gom du neex tamit dugal hejna ci xéli askan wala ci sen ay nopp waaye mën nañ japp né ay borom xam-xam surtout mbotay bi nga xamanté moom moo gàlloo wàllu wér-gu-yaram ci fep ci aduna ñom ñokoy wax xamna nit warna ci mëna am luñ ci tiyé dal euh, ci kaddu yi ñu wax waaw yéeme na de xam naa ne daal moom ñun daal nañ ci yem rek ci dégg ñoom ñu ko waxee waaw te te maanaam <laughs> man yii fi Covid booy bi la amoon da ngay indi story bi rek. fegwaari booy lii booy. da nga fegwaari. <laughs> ah, ah da nga waru billaay gars yi booy yi loolu day xam Covid rek ñu ko bëgg indi nit ñi beneen. Covid am na àq de. billaay février. Ah?

ñu bari gëmuñ ko won gabi ñu ne fan la commencé dorat. non ci yeen ci ci yeen rew yi ci story bi du ñaka a na ci euh jot ma ci japp rew buñ waaye am rew yi bal danaka rew yeb lañ lañ wax nañ nañ nañ vigilant nañ baye xel ñu gëna yok sen li nga moy sen ay euh xay pour sétu di di di di sét mandar gay, parce que amna mandar gay yu yu commencé juddu te nuro na affaire covid la waaw so loolu lay fi toog nan dem moom de hmm. ma daal hmm. foog moom mu dikkaat fi de hmm. ah waaye dikkati na xam nga am waaw boobu de waaw dikkati na def day am waaye du ñu bett ah waaw kon kon nag moo tax na ñu bañee bett moo tax ñuy wax du fi dikkaat sax du fi dikkaat Amadou <laughs> maam waaw covid jërëjëf yow moom da nga ci a duut baaxam depuis cukk gëwuma ko woon waaw waaye nag gëwuma ko ba tey mu ne fa mel ni ñu ngi dem na bee dem xaw ma kooma la nekkoon xaw ma dafa li fi waaye dañ ko bëgg a suqaliwaat waaw xëy na dañ bëgg a xeex yi dañ bëgg xam nga affaire covid non xëy na dañ bëgg a xeex yi dàkk ci aduna bi bi ko lu xew mooy xam nga gis nga non tubaab yi dañ dee manipuler te aduna bi dafa yéemu billahi wallahi tallahi ñuy à, jaaxal nañ ma te borom alal yi borom xam-xam yi rek ñoo nekk ci ginnaaw ñaawteef yu bon yi ñoom kese. doy na waar de. parce que ba léegi mënuñoo wax ne Covid. lii la fii la jaar. waaw wala lii la lii la lii. waaw parce que ñoom ñu ne China la sosoo. WHO ànd ak whatever dem yónni fa ay experts ñoo ñu dem China xu te woon naa xuwaan la woon xaw ma foofu la affaire yi sokkee ko foofu la tàmbale. dem nañ fa def seen expertise xuloo lañ fa mujjee ñoom i naan. Hmm. Chinese yi ñu dàqale ñu génn ba tey nit laa wax. Amérique tuumal tey na ñoom ñoo sos lii ñoom ñoo ko defar virus la. Hmm. dugg na fii ñoom ñu ne loolu amul nañ génne proof bi kenn xamul naka la daal ba tey ñu ngi toll fii WHO di ñëw di waxaat nit ñi Covid dafa mel ni am na yeneen variants yi nga xamante ne. ñoo trop man fu naa trop dros nit ñi dañ ko gëj gis rek mu nam ma waxtaan ak. Oh, media bi every day ba xam naa waaye gis nga hype bi mu amoon jamono Covid. Ah, gëj na ko am de. kii every day mu ngi woon si screen mu ngi doon wax. every day gars yi doon def ay meeting di def lu ne. ñun nag bañuñ ne wér yaram mu dund doomu aadama yi ñoo ànd. waaye aduna bi dafa toll ci problème yu nga xam ne right now nit ñi tal ñëw dégg leneen lu dul Covid. nit ñi dañ xiif nit ñi garab yi diabetes. nit ñi dañ xiif garab yi bolot. loolu la ñëw Covid loolu mu ngi jeexal. ak ak ak ak cancer. yooyu noonu nga. malaria bii mu ngi nii ñu gën a xeeb. te malaria baa ngi di sonal nit ñi malaria bi nu muy reyee. covid covid reyewu ko te malaria bi du ñu toog du ñu wax dara ci malaria bi. wala san dama dégg dama déggoon benn benn daat ci ci ob bi la fii de mu ngi collège la benn rajo mu ne xam ngeen mu ne mbas mu ne mu ne li ngeen di wax yëpp dégg la waaye nag man mag la xaw ma juróom benn fukki at xaw ma juróom-ñaar xaw la wax foofu la toll mu ne moom. fekke na dund na febar bu nekk yàgg naa dégg mbas. Mhm. waaye affaire Covid bi ni dara dara journalist yi bokk nañu ko grawal mhm. yóbbu ko fu mu yëggut te febar bu re ni jaar na fi mu wad dal wax bi nga xamant da ngay da nga nga xol ah, bi xol ah pa bi nak lu mu wax neexut a dégg. non tappalee la ah. tapal dina ah, febar yow niñ ko waxe niñ ko tawé di tital nit ñi. di ragal loo waaye kenn du ko fi taayewaat waaw let me tell you let me tell you Covid. Covid feebaru tappale la feebar bu nga xam ne. dañ ko créé kenn du ko fi taayiwaat. macha lu tax may la dañ ma xool suma yeneen good morning programme yi ah, ma ne gis nga gis nga li nga <laughs> yow da ko wax léegi rek su ma benn doom baay Aminata Sawane démb dama ko gis on the 28 of li nga xam ne mooy August 2020 dafa yuusoon face mask yi nga xam ne comme helmet yi caméra naka rayda yi ma gis mu xam nga Facebook every year dañ la dee remind mm-hmm. ma gis mu ngi remind bu di wax ne xam nga August 20 August 28 2020 ma xool li ma ne ah lii de jamono la waaye waaye gis nga let me amado you Amadou. ñoom dañu ko doon sol ba pare ñoom ñang ak yéen ñii ñëpp mun ngeen ma lii man like seriously musuma gëm feebar bi. on san mucc ñaa ci ba mu weesu waaye li ma gëm rek mooy ne gis nga WHO am na lu bëri lu nga xam ne seen wareef la dëgg la nag ñoom ñoo yore wàllu wér-gu-yaram ci àdduna bi lépp luñ saytu ñi gis ne xel mu ngi ciy teey te ñu war cee gindi nit ñi. dama gëm ne Covid depuis 2019 waroon nañoo indil nit ñi matuwaay mandargay firnde buy tax nit ki mu am saafara bu ko mën a faj. non waaye Covid dafa bett non waaye ba tey. ñoom ñoom dañ fa ne yow am na réew yu mel ni comme Amérique. waaw am na réew bu nga xam ne. jaamani France ak nit ñu fa dee. waaw dégg dem ba ñooñu tey loolu mënul leen. waaw leen la normal seen ay wér euh, euh, béréb fajookaay. ba ñu ma loolu kay. waaw loolu la ma ne lu bett rek lu la bett man la waaye ba mu la manee bu la bettee dañ ne mbër bu daanu bu jógee day dem ngemb waat. ci lay doonan mboor sax. waaw ci lay doonan ñoom ana lan lañ ngemb. ci lii waaw léegi non ngemb nañ ñoom fexe nañ bi léegi vaccine am na. ñu ngi liggéey pour am médecine. yow da nga vaccinu. non man vaccinu ma de. waaw man vaccinu ma gëmuma ko waaye am na ñu vaccine bi bari waaw loolu laa la waaw waaye dama la woo ma la bi rey na ñu bëri. woo ma la am na ñu am vaccinu nañ dañ dee. waaw xam nga yow léegi yow yow soo waree tukki waroon dem Amérique léegi da nga vaccine. da dem fan. soo waroon dem Amérique da nga vaccine. lan mooy tax ma vaccine. Covid bi. ma mun dem jënd vaccination card bi mu ngi fi fees del tappale yooyu mu ngi fi ñoom ñoo koy defar am na ñu tukki jamono Covid sax pikiir wuñ lolu bay lolu am lolu amna fi. lolu man day toral la di won di na legi mom teggi nañ ko sax dama ne mané mané jamono bam gëna tar Amadou amna ñu nga xamné tukki nañ te vacciné wuñ. te am nañ carte buy wane dañ vacciné wu. dañ ko daan jënd moo tax ma ne la tapale la na tukki tukki wuñ because of Covid. wa way bañu mako dé ñoo oh. ñu ñooñu seen loxo jottu seen gannaaw. yow ñu waroon na tukki tukki nga amna yépp yëpp pare seen loxo jottu seen gannaaw <laughs> ay lolu kay lu leer daj la bu suma loxo jottu sama gannaaw guddi yoy ma tukki déedéet donc mooy ah, yow fi ngay dem ñëpp ñu ngi dee foofu. fooy déedéet loolu laa la ma ne. bu doon doo dem de su ma loxo jotoon su ma. gannaaw boo tëjoon leen bundi boo tëj leen bundi ba pare. Ah, waaw loolu laa la wax ma ne am na ñu doon tukki. déedéet jamono am na ñu doon dem faju ji. jamono am na ñu doon dem di nga xamante ne maam pléne yi sax dañ taxaw. waaw ba ba ñu mën période boobu nañ fa jàmm. waaw yow xam nga février. gaa dem di ñëw. waaw loolu la waaye time waaye time boobu am affaire noonu. waaye fi nga bëggoon a dem ñooñu dañ tëjoon seen ay bunt. te yow li yow li la bëggoon a yóbbu sax. waaw loolu la yóbbu sa morom. ay da business yi du benn. déedéet loolu laa la wax loolu moo tax ñu doon dem di ñëw. loxo moo jotul gannaaw ci jamono boobu. waaw loolu loxo jot gannaaw bu ku la waroon a yóbbu moo tëj mooy nguur. waaw loolu laa la wax moo waroon a yóbbu loolu ñi la seen loxo gannaaw nguur tëj mooy ñaan nguur waaw léegi nag loolu laa wax déglu bàyyi leen yooyu teg leen loolu si suuf <laughs> leen uti lu weesu. ah si la ma bëgg a wax bu leer ni. déggoo fet léegi a a dem kay dem waaw loolu laa ma ne musiba rek léegi damatuñ trop moom bëgguñ koo dégg sax. covid lu ñu doon xaar daal am nañ garab. non waaye on est more serious note. boo gisee tamit daje WHO wax. ak lu mun taxew dañ na war a tamit gom somehow. téye leen si man mun leen déglu man gëmuma leen surtout ministre of health ministry of health. ñoom dañu war a déglu WHO tamit mm. teel leen bàyyi xel lu ñoo wax. parce que ñoom ak lu ment lu fi munta génn tamit dañoo wax ne ñoom ñu ngi dañ bàyyindeku de te waruñoo bàyyindeku. non Samate de moom moom xam naa ne moom. lii bettu ko te nit ñi bu xoolee ci moom moom. waaw loolu la am kenn du ko wax dara ci côté boobu. parce que moom Samate moom foog lii bettu ko ndax li xew mooy Samate man lu mujj laa gis ne mu xaw ko wàññi

nit ñi am nañ ñaaw njort ci feebar bi te ñaaw njort bi ci nit ñi am moo tax ma ne la WHO lii seen taxawaay ak lii seen wareef ak lii seen responsibility right naw mooy nañ wan nit ñi proofs ak evidence yu leer nañ luy tax nit ñi ñi gëm ne nii cancer patient amee understand ku nekk cancer ku ne ñu ne la tey lii ak lii ak lii mooy mandarga yuy tax yow nga mën a faju ci arab ci anam yi ak ci anam yi understand te dama gëm ne bu ñu bëgg a loo ne covid luy xew la comme ni malaria di xewee nawet bu ne on seen because loolu lañ bëgg wonee rek. non ñoom ñu ne still a global threat. is naa ne because there are no solution for it indi jafe-jafe si àdduna bi. amul amul benn saafara bu ñu ci indil. te mboolem feebar yuy gaaw pour reye lu mel ni malaria lu mel ni Covid. ñoom pare wuñ xam nga ne vaccine bu ñu indi moom moo xala wàññi affaire yi ba tey ñuy toll fii ñu ne affaire yi jeex na jeexul eh, ah dañuy ñëw contrôle lii remote la rek dañuy wax rek vaccine bi am na ci solo booy vaccine bi gis nga ñu ñu ñi jëlut vaccine moo ëpp ñu ko jël léegi adduna bi yëpp lan ngeen di advise ministre of suñ ministry of health pour ñu def ah, nañ vigilant rek réew muñ ne commencé na fa bu dee sax dañ ne Gambia fii la ñu xool naka la ñuy defee saafara pour faj ñi nga xam ne ñoo ko amee wala teg leen benn bërëb ci nañ ko doon defee ci njëlbeen ba bum lawaat ci réew mi ba indi gàllankoor yuy tax ñii tëj bitig yi ñii di jaay suba ñii di jaay ngoon lañ dundoon jamono Covid ñaanuñ ko yàlla. Ah, te tolluwuñ fa because fi jamono tollu tey ndóol gi bari na fitna yaa ngi bari ci àdduna bi Russia Ukraine gis nañ ko Niger gis nga la fay xew.

Poutine tamit ak. Russia ñëw ak Zelensky yóbbu nit ñi ci beneen. innocent léegi France fii ngay gis nii xoolal gis nga France ak Niger bu demee ba seen muumu njaam ngi dakk beneen problème dafa am mboolem réew yi yu CFA dinañ am problème. man maa la wax loolu bés ni tey te nga nóot ko jërëjëf bu bu demee Niger succès junta bi mun a dem ba contrôle hmm. ba mbuu jaam gi dakka diggante Niger ak France Gambia dinañ nekk victime sub dinañ nekk victime because CFA moo dominate li contrôle li nga xam ne mooy suñ économie. victime ci lan non sax non li ñoo nekk victime mooy France dañoo am problème dañoo am economic crisis. Ah, ñoom suñu amee seen problème la ñoom. non waaye ñun we are ah, dalasi bi fan la fan la mën a ah, dem. non loolu kay. dalasi bi fii la em. Hmm. <clears throat> waaw fii la em boo fi dem. wéli fii boo fi boobaa dañooy suut CFA bi mu eeg comme nu mu leen neexee. CFA bi day eeg nu leen neexee kay. yow jaxatoo kanja sax boo koy jënd ci biir réew mi CFA ngay dem jënd ko mu dugg ci biir réew waaw bu boobu ñun dañooy bayal suñu bopp la dundee. ba nawet bii di jeex si nii. léegi amul na bay amul noor amul nawet bi hmm. léegi. waaye li ëpp fii ci réew mi nawet lañ ko yaakaare baykat yi ak baadolo yi. waaw nii tax yow nga mun a am gerte gu doy ci biir réew mi. mister baadolo lañ te nawet lañ ko yaakaar docteur Sabali mu ngi laa dégg te xam naa loolu dina ko sóoraale. kan honorable Demba Sabali. waaw ministre of agriculture. non yow yow. kii kii lan lan la ñu wax fii keroog. Euh, sa sa waa ji euh, Boy Malick lu la wax. amul dara lu soppeeku ci mbay mi be tay bo demee jaxali paccaar tay bu yalla ji tawé bu yalla ji stobé taw sen nga ki dekké 10 meters away from géej mu am ndox because amul machine yu taxaw pour nelul, lolu jëbbul ndox mi ñi nga xamné ñoko soxla ci bërëb yi nekk yëpp yoy yëpp ay problème way nañ nañ ko fix amna inshallah insha nañ ko fix lolu dé moy yéene bi final on covid ministre bi parce que moom moo yore yaram ci bi dal nga lay di advice ministry bi sax wax parce que nag ak lu mënta xew ñoom tamit ci doon WHO lañ nekk te dañ leen di déglu bu ñu waxee lu mel ni ñu mun nañoo foog ne fii lan waaye wàllu experts wàllu xam-xam ak ñoom tamit li tax ñu wax ko am na fu ñu ko teg te gëm naa ne réew bu nekk war ngaa mun a bàyyi xel ci li ñoo wax. anyway ah déglu ñoom gars yi seen direction si rek ak lu ñu wax ne loolu la ñoom ñu teel see jóg parce que ñoom. mais département of health lañ nekk di waxat réew yëpp ñu ñu wax ak seen nit ñi mhm. so loolu kon jar naa bàyyi xel gannaaw boo xamee itam yeneen passé na mhm. so ñu bàyyi si xel bu baax waaye ñu ngi ñaan daal yàlla yàlla bu yàlla bu mu amaat parce que musiba la woo xam ne ni am na dafa normal économie àddina si mhm. so yooyu moom dëgg dëgg dëgg xam naa ne loolu la gars yi ragal moo tax suñu gisee li xaw a ñu roog moom foog ñi jël si matuwaay yooyu wax nga woddoo moo gën a. waaw yee mu xoddee ko waaw. mu gën la waaw anyway yàlla bu mu am. is the best ñu ñaan loolu. yàlla bu mu fi gisaat leneen lu mel noonu. fii ak téeméeri at buy ñëw te noonu lañ si amee yaakaar sax ne ngelaw lu fi romboon la te yooyu bu ñëwee balaa moo ñëwaat war na mën a yàgg si suñ gëm-gëm ñun yàlla bu mu fi amaat loolu la ñëw ñaan te gëm nañ ne du fi amaat. moo moo gën a mas mu mel noonu gëm nañ ne du fi amaat. ñoom docteur ñoom docteur bi tey daal soo li si des mooy ne ñu fexe nag. Hmm. nañu fexe garab yi ñuy jox àddina bi que te am na feebar yi fi nekk yi nga xam ne ni mun ngaa wax ne garab moom amul. il faut que feebar même ni amoon na ko wér kak am na am ne ah. ñu dugal farlo bu ñu woon. waaw ah. invest bu ñu def examine ak whatever. you wanna call it bu ko defoon ci malaria bu ñu ko ci cancer bu ko defoon ci. diabetes def ko si high blood tey. Euh, garab yu bëri yu mën a faj feebar yu am. bon yooyu noonu yëpp boromam tane rek li nga mënoon. dootoo ko mënati soo gar yooyu looyu yooyu nag buñ buñ fexewoon ba gëstu si lu ko am na ni waaw koy faj li koy faj comme malaria bu jógee si ni nit ki mën a delluwaat def ca tànk loolu malaria demoon nañ ba mun ko waaye ba léegi mu ngi siisu waaw boo am ne garab te feebar nga xamante ne amee malaria Afrique rek la nekk waaw waaye Afrique rek la nekk asian countries amu fa bu ko sax ñun yooyu mooy taxa yooyu noonu waaye su yoon am na yàlla léegi def na. ba lan moo a éliminer yoo Europe ak Amérique mënuñ ko éliminer fii. waaw yëpp na garab bu nga xam ne soo ko naanee ay na fii ak. three days mun nañoo dimbale ba ñu mooy man man fu may daane rek SG mooy maa si ñoom docteur Bitté exemple buñ dégg ñoom Tedros wax ci biti dafay baax tam ñoom docteur Bitté ñi nga xam ne lii seen responsabilité la seen xam-xam doon ay ndaw doon doomi réew ñi génn teel a araftu wax ak réew mi ni ñi xam naka la ñuy def jël suñuy matuwaay ba xam bu dee ne lu wóor ci ay firnde yuy wane lii dafay ñëwaat ñi teel a fàggandeku ci ay matuwaay yuy tax duñ toogaat ba gis ne feebar bi commencé na Angleterre nit jóge fa indi ko fii commencé na Amérique nit jóge fa indi ko fii bu ko waxee lan mooy demal ñekku ji doo xam nga lu tax Amadou vaccine. man gëw ma ko te loolu mooy wax. man gëw ma ko. man dama doon war rek de man gëw ma ko da ngeen a dem jëli vaccine. man dama baa ngi fi free la. man dama doon wax jël ko nga mucc si. man dama doon wax rek de. Ah? a tooñ rek. Ah, léegi maam man damay wax di réalité de dama leen jëli vaccine bi ba pare ñaa askan ñu continuer ko jëli non man du ma wax lu nekkul man xam naa ne man du ma piqûru ah, sax yow xam nga man ñemee ma piqûru gis nga damay bëgg a dem buddi bëñ onasan su ma demee wan awa dinaa ko am balaa ngaa dugal pousse suma gémmiñ bi because ah. ñeme woo ko man ñeme woo pikiru jërëjëf loolu is naturally thank you is is loolu moom ko gën ragal man naa ragaluma jam bi jërëjëf test bi laa is already 10 uh, 10 25 uh, according to our studio clocks. su ko defee foofu la ñëw ndar keppale waxtaan bi ci first half bi gërëmaat leen bu baax a baax jaajëfal suma eh, gars yi tamit ci jàngat bi taxawaay bi surtout situation bi nu moo demee ci Niger ak eh, wàllu Covid bi tey eh, loolu lañ gën a waxtaanee waaye tamit ñu fàttali lekk yi nga xamante ni ñu ngi ko jaay ci dëkk bi ñu gën koo bàyyi xel yuy expire def dee bëri surtout ci marché bi léegoo-léeg am na yeneen place surtout Serekunda boo fa demee lu lu yomb lu ñoo jaay lu gën a bëri fekk daanaka you na ba pare. that amit ah, yëpp ah, food safety am nañ ci a very very big responsibility so war nañ cee gën a mun a bàyyi xel gën vigilant gën a ah, jël steps pour aar askan bi parce que loolu tamit dafa am solo so tey daanaka loolu lañ leen amal ci First Hab so but bu leen sori dañoo jël a short commercial break and right after that bu ñëwaatee ñu indi leen news review bi mooy ñu seet newspapers euh, yi ñenn ci ñoom tamit lan lañ xëyee euh, seen ay xibaar ñu def ci jàngat ak Mohamed Mbye léegi léegi incha allah right after this break stay tuned we'll be right back. CAF Africa Global is the first and biggest private estate developer in the Gambia and presence in seven other African countries. We take pride in leading innovation in all spheres of real estate sector in the Gambia and beyond. As such, we are launching the development of the first smart and modern office and retail towers in the Gambia called TAF Twins. The TAF Twins is located in the heart of the Carnifing Institutional Area and 10 minutes drive away from Banjul. TAF Twins is designed to have five floors of office spaces ranging from 50 square meters to over 1,000 square meters with two elevators, central air conditioning, 24 hours electricity and water supply with the ground floor reserved for banking, supermarket, restaurant and coffee shop. For your bookings and reservations, please call now on 376-2333 or 776-2333. Thank you. Gambia ci ndimbal luñ jot nag mu bàyyi ko ci World Bank ñu ngay defar nag loo xam ne nii lépp ajuna aju na ci wàlli xibaar ñu war ko binda di register dinañ ko taxawal ci réew mi fii lii nag li di jubluwaay bi moo di nag pour càmbar ak boole lépp loo xam ne nii moom la nit ñi di war a soxla ci réew mi fii ci wàlli bunti ndimbal su ko defee li di xibaar boobu ñu am ko ci benn téere ñu ngi ko tuddee nag Gambia Social Registry registry boobu nag moo di place bi ñooy bindal nit ñi seen tur su ko defee lii dina dimbale askan wi ñëpp am xibaar yoo xam ne nii ci benn bopp laay nekk ngir nag ëllëg ak sibit su fekkee ni am na bépp ndimbal boo xam ne nii war nañ koo dimbale ci askan wi fii ci réew yi Gambia bunta boobu nag ñi koy taxawu di National Social Protection Secretariat bunti liggéeyukaay la bu nekk nag ci office yi vice président réew mi tax na nag li nga xam ne nii moo di bunti registre bi xibaar bi ñu faa jëlee yëpp dina ci bokk nga xam ne nii moo di borom njël yi fi nga xam ne nii fa lañ dëkkee ak kenn ku ci nekk sa tur ak sa wàlli yëngatu ci sa wàlli koom-koom ak sa yaxantu ak sa am am xibaar yu yëpp dinañ ko ci binda xibaar bi nag dina dimbale nguuri Gambie pour ëllëg si biir su fekkee ni am na bépp ndimbal boo xam ne ni ekkati nañ ko ci réew yi Gambie pour dimbale ko askan wi su ko defee na dina ko yombal gaawal ko ñu mun a ràññee itam ci saa si ñi nga xam ne ni nag ñoo soxla lii di ndimbali programme yi lii dina tax nag nit ñi ñu am seen xibaar yoo xam ne nii ñu ngi nekk ci benn place ci misaal li nga xam ne ni nag moo di national identity card te dina yombal lépp loo xam ne nii nag képp kuñ fa bind rek lépp luñ soxla pour dimbale la wala taxawu la dinañ ko fa mun a amee ñi nga xam ne nii nag ñoo di ay kuréel di war a def nag binda bi bàyyi ko ci liggéeykaay nguur gi nga xam ne nii nag ñoo di Gambia Bureau of Statistics di GBOS dinañ dem nag nemmeeku réew mi waxtaan ak nit ñi ci dëkk yi ngeen nekk kon nag su jamono jo jotee képp koo xam ne ni yaa ngi ci rek na nga fexe nga bindu waaye nag ñu ngi leen di leeralal ne nag ne pour suñ la bindee itam loolu tekki wut ne su ndimbal amee ci wàlli programme rek yow di nga ci war a bokk li nga xam ne nii nag moo di bind bi di social registry bi nga xam ne nii nag ñu ngi koy jël di xibaar yooyu leen dinañ bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne nii moo di secret nit ñi ci seen wàlli dundin ak ni mu tëddee loolu dinañ ko aar ba nga xam ne nii daal dafay nekk secret keneen du ko xam wala jot ci ko lii nag tax na su jotee rek képp koo xam ne nii nag yaa ngi nekk ci réew mi fii rek te nekk nag borom jël eh, saa yu nga xam ne ni bindakat yi ñëw nañ ci seen i tunday wala seen dëkk yi rek dem leen geen bindu xibaar bi nag mu ngi bàyyi ko ci ron liggéeykaay nguur gi nga xam ne ñoo saytu wàlli xibaar yi nekk nag ci ron liggéeykaay ministre bi saytu bunti jokko gi xibaar yi ak tasakaay xibaar yi defee ñu del suwaat ci euh, final segment bi comme ni ñu koy defee ak yéen saa su nekka <coughs> ci programme bi xam ngeen ne euh, bu waxtu bi jotee rek dañ dee ñëw ànd ak newspaper euh, review bi ànd ci ak Mohamed Mbaye soo ko defee Mohamed ñu la baax di la wax naka suba si Faye suba saa nii rek di nuyu euh, Mamadou Mouhamed Niang ak maam Jibi Cissé Wane ak bokk yi si daan ay Africa TV rawatina jotaay bu mujj bi di li gën a fës ci yéene kaay. acca nga doxal seet gaay la lañ xëyatee seen ay xibaar. mi noonu lañ koy defee rek saa bu ñu xëyee dañuy faral di am fii yenn rek ci euh, yéenekaay yi ci biir réew mi tey nag am nañ fi ñeent benn bi di euh, standard am nañ fi Foria am fi di voice ak bi nga xam ne mooy di point bu ci nekk nag dinañ rek xool li gën a fës ci xar-xaramam gi. ñu baaxee ko rek bokk yu euh, seetaan bokk na nag ci standard la ñuy rekk daal di doore standard moom xëy na yaatal lu bari ci rek xarxanamam gi bu defee ñu comp ci as lëf daal di koy baaxee askan wi bokk na rek ci AIC mi daal di rek tontu euh, kii di njiital langu UDP gi ginnaaw ba nga xamee ni euh, ci bar ñuy rek màggal seen ñar fukki at juróom-ñaar ci ba muy rek addu daal dina wax nag ci wàllu AIC euh, ci élection ci réew mi ni mu rekk daal di waxee ne ci ñàkk seen rek crédibilité ndax nag nee na ci lu ko daree rek ci 1996 ba rek ci. 2016 élection bu fi mos rek am am na rek jiixi jaax ak sikk sàkk loolu nag eh, ñi nga xam ne eh, ñoo di rek ay tontu nañ ko di xam le nag yooyu kaddu du kaddu yu wér ay kaddu la loo xam ne eh, amul tey nag daraay dëgg amu ci tey nag kaddu la yoo xam ne dafay rek daal di indi jiixi jaax ci kaw rek askan wi waaye nag du kaddu yu wér loolu nag la ay si daal di tontu ci loolu ñu wax ci leneen nag nguur gi ñoo ngi nag daal di wax ne dinañ rek maanaam Euh, wut li nga xam ne rek moo di approval ci rek ni nga xam ne ñoo rek euh, ngombalaanu réew mi maanaam National Assembly lu jëm rek ci approval ci wàllu rek EU deportation deal bi mooy rek diggante euh, doomi réew yi ñu war a delloosiwaat di leen jëlee rek ci réewu tugal yi maanaam mbir proposal boobu noonu faaw rek ñu yóbbu ko fa nga xam ne nag mooy ci Euh, ngomba laan nga maanaam rek ci pencum ndawi réew mi ngi ñu mën a rek euh, jël seen rek euh, dogal ci rek mbir moom ñu wax ci leneen ak waas nag daal dina rek wax rek addu ci rek wàllu li nga xam ne rek moo di euh, Niger ci wàllu miss boo xam ne nag lu mi xam xamle mooy euh, ni ñu ko rek jëlee maanaam dañ ko rek misinterprète loolu yi nag daal dina ci addu yaatal na ci nag lu bari euh, ci li nga xam ne rek mooy ci biir yéenekaay bi ci tolluwaayu nag réewu Niger ak it nag les ci wax yu ci bari Raphael di rek après que bànqaas boo xam ne nag jigéen ñi ñoo ko rek daal di ëmb ñu ngi rek Raphael bi nga xam ne nag mooy bànqaas gi nekk ci Gambie moom mi ngi waajal nag daal di lonc maanaam ngénte après que boo xam ne youth yi ñoo koy rek tax jóg muy rek projet boo xam ne volunteer project la boo xam ne nag ngir ndaw ñi la lu nag ñu ngi koy rek daal di waajal uh, ci réew mi file ñu tëj uh, boobule yéene kaay di uh, standard ubbi bi nga xam ne nag moo di Forea Forea moom xay na bindi lu am solo ñu daal di rek añ bu ci njëkk bokk na nag ci pencum ndawi réew mi ñoo ngi di woote li nga xam ne rek moo di ab ordinary session ci rek altine ji ngir rek jàmbur yi daje maanaam rek sëgg ci rek seeni loolu yi nag altine lay rek daal di doon ñu wax ci leneen ci nag liñ doon laam-laamee ñàkkum li nga xam ne moo di pétrole eh, ci réew mi jëwriñ ju ñu dénk nag wàllu wi moom nag ci réew mi maanaam shortage of pétrole nee na loolu yi nag daal amul loolu la ñu rek foria daal di indil ñu wax ci leneen point moom it xëy na bindi lu am solo ñu daal di koy rek ëñ eh, ànd ci rek eh, am na rek ab constant bu ñu rek continuer ci wàllu li nga xam ne rek moo di rek Euh, lekk yi nga xam ne rek duy baax te dafay faral di expert maanaam app gi day daal di jeex luy nag ba tey jëlee nag askan wi ñu ngi ci rek tàmbalee jaaxle ndax ba léegi euh, ci wàllu woowu nag liggéey bi ñu ci war a amal ngir di fexe bagage boo xam ne wala lekk boo xam ne dafa expert ñu mën koo jël yóbbu ko fañ ko war a jël balaa rek askan wi di ko rek daal di jëfandikoo luy nag ñu ci bëri ñu ngi ci rek daal di indi seen rek xalaat ñu wax ci leneen Pakistan yi nga xam ne nag ñu ngi file muy Pakistan euh, community bi ñoom nag daal dinañu taxawal nag seen seenub association ngir rek rek ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekk nag xam naa di waxtaanee eh, seen i mbir yu leen soxal ak nag seen nekkin eh, ci biir eh, réew mi file ñu wax ci leneen li nga xam ne rek mooy kuréel gi rek lu ñu tu ñi rek di nguur gu suufee gi commission yi nag ñoom lu ñu rek wax mooy lu ñu seetlu ci rek ñi nga xam ne rek moo di seen euh, procurement plan ci maanaam suñuy waajal jënd ak yu ni mel noonu euh, yu ñu koy rek doxalee nee na yooyu nag gis nañ ci rek li nga xam ne rek mooy ñàkk sax maanaam inconsistency ci rek wàllu wi tey na dañ ciy faral di gis yu ci bari ci yoo xam ne rek dafay am ay njuuj njaaj ak yu dul méngoo rek ak yoon loolu yi nag daal dinañu ko euh, xamle su ko defee rek Amadou dañuy rek taal di tëj yéenekaay yi tey jile ci talaata ji. yaatal bi ak leeral bi ci ni nga koy ànde ak ñun ak ñuy seetaan toujours bu waxtu bi jotee daal di la jaajëfal bu baax a baax ci taxawaay bi mu doon lu am solo ñuy joxante ñuy gaay ba suba euh, of course ñu àndaat ci yeneen yéene kaay di la wax jërëjëf. jërëjëf Amadou jërëjëf bokk yi doon seetaan Mamadou Mouhamed Niang maam Jibi Cissé Wane coronavirus moom lu am la nañu gën a wattandiku rek bañ mu daanelaat réew mi waaye corona daal am na lu am la ku nekk daal na jël. maison yi nga war a jël ñu war a takk masque nañ takk masque hmm, ñu ñu moytuwante ni nga jiganteeg maam noonu sax wóorut nañ nañ yow ak ñang di dafa war a am distance wan <laughs> wan <laughs> mi mi noonu ñu yendu jàmm Amadou jërëjëf <laughs> jërëjëf waaw kooku moo ngay déggal kaddu yi WHO euh, directeur moom Garme waaye wat di ci mënta am euh, taxawaay bi ak euh, bàyyi xel bi dafa doon lu am solo ba anyway thank you very much euh, Modou Niang xam naa ba suba incha allah jaajëfal la ci taxawaay bi. waaw jërëjëf Amadou jaajëfal ak ñu ñu toppoon programme bi di leen jaajëfal. Hmm. di ñaan yàlla mu may ñi ñu ñëwaat fii. Ah, incha allah amaat ay yeneen ponk yu ñuy waxtaanee bañ a pàccoo réew mi rek séddoo ko waa incha allah jërëjëf ah. bu baax a baax di jaajëfal ñëpp di wax ne daal ah yéeme na de. yal na yàlla def jàmm daal si àddina si. waaye yéeme na trop jaxasoo na yéeme na jaxasoo na ah, <coughs> màggal Tuubaa gi yal nañ ko fekkee ak amin ya rabbi bu passé gàmm mu ngee dëgmal hmm. boobu tam yal nañ ko fekkee ak amin ya rabbi yal na yalla soppi yëpp ay xewal amin soti ko Sénégambie bi xaasal len ci ba def afrika ak adina ah ok yes Amin. jërëjëf Modou mohammed ñang ci kaddu yi maam yooyu suba inshallah allah jaajëfal la ci jàngam jëjë sëgam soob na suñu borom inshallah suñu ko katan yalla maye rek dinañ del ci guddii ci jotaay géew bi waxtaanee waa tolluwaayu lambi Gambia as usual. dinañ dalal secretary general bu Gambia Wrestling Association. ak euh, lépp lu jëm ci tolluwaay waxtaanee làmbi Gambie ak lu ko wundu nuyu ko ñaanal ko taw fi jàmm asalaam suñu doom baay ñu ngi koy ziar bu baax a baax <coughs> nuyu ko borom Jales euh, li nga xam ne mooy salon ñu ngi koy nuyu di ko bàyyi xel foofu ci marché Costa Route mm. di nuyu di delloo njukkal tijaan borom fara Farafeñe borom Caaku Bantang moom tam suñu soppe la mm. su xëyee du amul lu muy def lu dul good morning dafa jeex Babou Sow tamit keroog rek ñu ngi dajee mu ngi leen di nuyu hmm. moom ah, tam mu ne bu àggee office rek good morning lay seetaan Babou ñu lay nuyu di nuyu yaa boy ak mbolem ñi toppoon jotaay ji ñaanal leen rek yàlla may ñu kendal ak jàmm inshallah amin ya rabbi thank you jërëjëf maam jërëjëf uh, mod ñang ci taxawaay bi mu doon lu am solo jërëjëf tamit uh, garme ci uh, yene kaay comme ni nga koy defee ak ñun suba bu nekk waxtu bi jëte tamit den team ñu jàpp ci liggéey ba cameraman yi ak woman bi of course and the control room team uh, Dylan, well, thank you very much once again. Uh, for the coordination and all that waaye yéen ñi ñu doon seetaan amuñ seen fay di leen jërëm bu baax a baax ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi eh, jox leen rendez-vous incha suba the uh, same time same place comme gars yi ñu ko waxee incha allah ñu del suwaat ci beneen édition fii ak boobu rek ñaanal leen kenn leen jàmm di leen wax jërë jëfati ba suba bye bye